Euh, ni ñu ko baaxoo defee nag euh, ci waxtu wi ñu ànd ak yéen ci seen jotaay bu am solo bi nga xam ni moo di vingt 28 Mbëstën encore di am ci seen télévision bii di euh, Touba Vision di jotaay yoo xamante ni dañ ko dooroon benn fan ba tey ñu ngi ci fukkeel bi ak juróom ci ay jotaay di jotaay yoo xamante ni dañ ciy waxtaanee xam-xam waaye itam di ci waxtaanee dundinu askan wi lépp loo xamante ni rek loolu laal askan wi la. laal murit gi laal taalibe gi rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba danañ ko waxtaane waaye itam daal ci ay kàngam yoo xam ni ñoom itam ca ñu nekk ay taxawaay ak yi wàccuwaay yu am solo lañ fa am ci seen xam-xam bu leer ak seen jëflante ak seen nekkin yàlla na yàlla def jàmm ndax képp koo xam ne daal nañ suñu ñëwee dañuy jàpp ni jotaay bii wees moo gàcceel na ba ba wan loolu nag moo lay xamal kon qualité euh, nit ñi nga xam ne ak euh, waxtaankat yi nga xam ni moom la ñuy séqal jotaay bi seen i qualité day feeñ saa su nekk ci biir jotaay yi nga xam ni moom la ñuy am kon ñu ndokkeel bu baax a baax nag euh, démb euh, comité pilotage bi nga xam ne ñoo yor lépp lu doon jëm ci wàllu daara ju mag yi di complexe Seexul Xaddim bi ñoo ko doon ñoo fi ñëwoon démb waxtaan fi waxtaan am solo wu jëm ci université bi la ca làmb lépp ci taxawaayu sëñ Muntaxa ci njiital sëñ Ahmadou Badou Serigne fàllu ñoom itam ñu ndokkee leen baax ñaanal leen euh, tey nag ni ñu ko gisee ci affiche bi euh, ni ñu ko baaxoo defee ñuy feggoog soxna Aminta Dieng euh, moom itam di borom taxawaay ni ma koy waxee di jàngalekat di gëstukat boo xamante ni boobaak léegi jotaay yëpp macha allah nit ñaa ngi koy rafetlu waaye itam ñu feggoo ceeg soxna Awa Sylla mi nga xam ne moom tamit moo ñuy toppal réseaux sociaux yi nga xam ne ñoom support yi télévision bi nekk ngir ña fa nekk war a am laaj yu nu war a indi ci invité bi. moom moo koy saytu ak itam képp koo xamante ni bind nga war a jàll ci euh, plateau bi ñu mën koo jottali mbokk yi kon tey mbokk yi plateau spécial lañ amati boo xamante ni su ñu gisee gan gi ñu feggool di Serigne Muxtaar Sarr dana doy sëkk ni tey nar nañoo waxtaanee lu am solo muy li nga xam ni mooy euh, nit ki ni ma ko waxoon démb nan la mën a taxawee ci investissement ba mën a investir dara yaxantu yaxantu yaxantu ba dara génn ca loolu nag du lu am solo moom mu joxe ci misaal moo xam ni ñi ngi ci aw yoon di ca dox yàlla na yàlla defa leen jàmm ba lépp li nga xamante ni bii ay euh, bëgg-bëgg la euh, ñu man koo def muy capital investissement et euh, et finance ñu war koo waxtaanee kon tey yaakaar naa capital rek suñ ci toogoon di ko waxtaanee moom rek te mu boppam la su fekkee dañoo jël nag investissement nit ki war a investir ak fa mu war a fa mu ko war a jëlee na mu ko war a def ba indi ko loolu tam euh, waxtaanu boppam la waaye tam nag soo xoolee beneen tam bi des tam muy euh, finance itam euh, nit ki da ko war a jàng xam nañu financé xam nañu def lépp ba ngir yaa ngi dégg finance yu bari yaakaar naa su ñëwee ci biir waxtaan wi dana gën a leer ndax dañ ko gën a yaatal ba mu ban gën a xam ni moom xam-xam daa màcc ci côté boobu ngir nag ñu mën a solutionné Sénégal ci jafe am ci wàllu finance jafe ñu am ci wàllu investissement yépp rek ñu mën koo solutionné tey ca nag jël ci lépp nag référence lu mu doon murit gi ak njàngaleem Serigne Touba da ciy gën a feeñ da ciy gën a fës ndax moom mooy ki nga xamante ni euh, lépp lépp la yor kon soxna Aminta ñu wax la kàddu nga nuyoo su ko defee ñëw ñëw nag ci jotaay bi. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina moulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi zawi ridwan wa vision ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh mun Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njaboot gi yëpp ak mboolem murit gi ak mboolem taalibe yëpp ak fu waay mën a nekk di amaan mbégte lool nag jàkkaarloog yéen ci seen émission bii di vingt 28 Mbeustune encore di leen nuyu saa su nekk rek te di leen tatagal di wax euh, saa su nekk ñoo ngi ànd ak yéen émission bi gis nañ euh, teewlu gi ngeen di teewlu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen delloowaat cant géen tamit di amaan mbégte lool nag ñëwaat suñu plateau bi saa ñu ngi ci ñëwee rek ni ko sëñ saa waxee buñ ci dalalee kenn rek ñu xam ni bu démb ba bu tey bi gàccaal na ko macha allah ci ay thèmes yoo xam ne ñu ngi koy indi waaye tamit. ñi koy traité tamit ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox ñu ñu ci defal tamit li nga xam ni moom lañ bëgg mbokki téléspectateurs yi tamit bëgg ko te démb nag ñu dalaloon suñu ab laxaat loo mu yoroon comme ni nga ko waxee rek mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo jiite comité pilotage bi ci liggéeyu bi nga xam ni naan lu sëñ Muntaxa Bachir bi di ko ñaanal mu àggale ko jàmm ñu yor ci wàllum jàng ak jàngale démb gis nga liñ ci li mu ci leeral ci wàllu taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ci ak ni ñu ci fas yi nii doxal lépp ci wàllu jàng bi ak jàngale bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax waaye amaan mbégte lool nag bokk ak jataay bi suñu mbokkum taalibe bi di sëriñ Ahmadu sëriñ Maxtaar Sarr ñu ngi koy daral jàmm di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban bi ka di la ziyaara bu baax a baax di la ndokkeel ci weer wu tedd wii di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala jéego yi nga dox ba agsi bi yàlla na ko ay yiw yu baree bare kon sëñ Moussa dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi daal di présenté waal rek incha allah bisimilah. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim salli ñu ngi leen di siyaar soxna si ñu ngi leen di delloo siyaar bu baax a baax di leen nuyu lu bari eh, di jiital sunu kàddu di nuyu ak sunu sang sunu sëriñ sëñ di ko ñaanal gudd fan ak wér gu di am mbégte lool teewaay bi jotaay bi di jotaay waxtaan ak sanante xalaat. Mm-hmm. di leen sant ci dalal bi ak ci invitation bi ndax eh, li may wax rek naan yoon bi ak dëkk bi li fi nekk ci boroomi xam-xam ak ci kàngam. Mm-hmm. mu la ci CP si sa tuutiwaay ak si sa ñàkk solo. Mm-hmm. invité la ci moom ab cant la rek xam naa ni baax bu bari la ñu leen ci sant di leen di leen gërëm bu baax a baax. Eh, yaakaar naa ci wàllu présentation moom mën na gàtt ndax maa ngi tudd Mokhtar Sarr eh, yàlla def na ni ma jiite eh, société bi ñuy wax Rijal Holding si Rijal Holding di société d'investissement Mouride mooy mbooloo boo xam ne Mouride yee ko dajaloo am lu ñu bëgg ci dëkk bi mu jox ma ma war a saytu lépp lu jëm ci wàllu defin yi ak topp ko ci at yi di ñëw waaye lu jiitu loolu nag euh, si sa si ba tey maay co li naan ko cofondateur société bi d'investissement bu naan MNA Capital MNA daanaka bi nu doxee sunu jaar-jaar ba ñibbi si 2016 defe naa ni moom lañ njëkk samp taxawal ko muy doon yëngatu ci wàllu investissement tamit euh, waaye ci lu gën a yaatu ndax ni Rijal Holding tënkoo ci biir Touba defe naa M&A capital noonu la gënoon yaatu ci wàllu Sénégal ak ci wàllu Afrique de l'Ouest ak Afrique centrale yëpp sunu jaar-jaar nag euh, defe naa li ci ëpp solo rek mooy taalibe Sëñ Tuubaa lan di ko ndamoo di ko fësal ci lépp lu ñuy def te di ko ko sante la ca topp yëpp yaakaar naa ni euh, fu nu tàggatle rek sëñ bi jaarale na fa mm-hmm. am lu mu namoon si ñun ci euh, xam-xam ni ko ñëpp di defee jaar fii école bi euh, mu paree suñu école tamit ba suñu baccalauréat tukki nan uti ay lijaase ban ko amee tamit door nañ liggéey ci bërëb yi gën a mag muy si banques yi muy ci wàllu société pétrolière yi ba ni ñu demee ba xam ni daanaka toll nañ foo xam ni daanaka ber suñu daara ak doxal suñu bopp moo ko moo moo jot euh, ci loolu nag defe naa ne 2008 2009 ba léegi ci loolu lañ nekk waaye ber sa daara moom dafa bari façon euh, façon bu njëkk bi mooy ci wàllu jaay sa xam-xam. Mm-hmm. waaye boo jaayee sa xam-xam ba toll fenn fii tamit da ngay xam ni fu loolu doy na nañ jël jàll ci li nga xamante ne mooy li ñu dajale tey ñu war ko waxtaanee jëm ci wàllu investissement. Mm-hmm. naka lañ mën a téye sunu moomeel dëgg dëgg dëgg ba ñu amee xam-xam bi ak jaar-jaar bi ak lépp loo xam ne mën na nañu wax ni ñi nga xamante ne ñooy jóge bitim réew ñu di ko def ci loolu la ñuy taxaw. Mm-hmm. am na solo. Mm-hmm. Euh, Serigne Moukhtar Sarr. Mm-hmm. kon nag euh, ñu ngi lay ndokkeel baax a mm-hmm. di la euh, sant ak mbooleem société ba ñoom ñëpp muy waar yàlla Oldine yëpp ñu ngi leen di ziar. di ñaan yàlla li seen bëgg-bëgg. ba tax ngeen taxawal ko. ci moom sa bopp. yàlla def ñu balaa yàgg dara. ñu gis résultat yi mu tàmbalee feeñ. ndax daa jot fi mu nag ñu xam ni. Euh, Serigne Touba ak moom sa bopp rek naka jekk indépendance mhm. la doon woote moo ko jaraloon xeex ba tey jii dér bu ñuul mën a amoon boppam mhm. kon nag la des mooy ci euh, li ñu jot a ndar képp ci wàllu euh, économique ak yooyu mhm. ñoo war a ñu nag góorgóorlu ba tekki bu mi ñu takkoon jatange ñu jatangoon tam ñu fexe ko dindi yàlla yàlla def ñu def ko ci barke Cheikhul Khadim ba lay yàgg dara kon su ko defee soxna Awa itam mooy ki nga xam ni moo ñuy toppal réseaux sociaux yi ni ma ko waxee léegi Euh, jëm ci YouTube beeg ya mel ni ki moom ak ñi nga xamante ni bëgg nañoo indi ay laaj jëmale ci Serigne Muxtaar euh, Sarr mhm. euh, fan la ñuy jaar ba mën a ñëw soxna Awa nuyu na la ziar la yaa ngi foofu ci wet gi yow ci ruq bi wala yaa ngi ci biir studio bi foo nekkee télévision Touba Vision. Mhm. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu képp koo xamante euh, di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Mhm. di nuyu waa plateau bi ñëpp de euh, nag ñu ñëwaat ci seen émission bu mag bi di 28. mbëstën encore nga xam ne ñu ngi koy baaxoo di def bi weeru koor gi commencé ba léegi. Mhm. ñu ciy dalal ay ndaanaan ay boromi xam-xam ay boromi kàngam. Euh, tey nag ñu dalaloon monsieur Mokhtar Sarr PDG Rijal Holding mu na fee waxtaanee waxtaan bu am solo. comme niñ ko baaxoo di defee rek képp koo xamante ne si am nga bëgg nga euh, poser question monsieur Moctar Sarr mën ngeen ñoo topp ci suñu plateforme yi mu di WhatsApp YouTube Facebook Instagram ak IPTV comme niñ leen ko baaxoo di waxee rek mën ngeen ñoo envoyé message foofu bu fekkee WhatsApp la mën ngeen a jël numéro yi nga xamante ne si moom leen ñuy affiché ci suuf d'écran bi mu 77 416 25 di ngeen ci mën a jokkoo ak ñun kon sëñ Moussa ñoo ngi lay delloo kàddu gi di di la ziar. am na solo soxna si jërëjëf macha allah euh, ci taxawaay bi euh, euh, ñu ngi koy ndokkeel baax a moom tamit di ndokkeel sëriñ Xaadim Seck ñoom ak ak caméraman yi ñu àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax kon cheikh bi rek sëñ Muxtaar dañuy dugg ci jotaay bi xanaa ñaan yàlla dugg ci ak bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabbi alamin te lépp loo xam ni wax nañ ko fi muy njariñ kenn mën koo jariñoo cam dégg ci noppi ñi cam dugg ci noppi ñoo xamante ni dinañ dégg ci barki Cheikhul Xadim Euh, kon fi ñu njëkkee rek euh, présentation euh, en tant que directeur sénéral bu Rijal Holding Rijal Holding lañ bëggoon nga faram-fàccee ñu tur bi ak xalaat bi fan la jógee ak lan mooy seen objectif. waaw maanaam cosaanu Rijal Holding da doon taw feex sax waxtaan gi amee ci weer gi ndax bu ñuy toppaat cosaan li naam mbirum Sëñ Tuubaa moom buy am daanaka dangay yow sax da ngay da ngay yéemu da nga naan lii fu mu jaar waaye bu ñu waxee tuuti rek ni Rijal Holding ci Facebook la juddoo ci weeru koor la woon daaw weeru koor daaw ci Facebook la la am benn maanaam aal bu fa yeewu murid yi daal jàpp ne jot na murid yi am banque eh, mu jur aal mm-hmm. murid yëpp jóg eh, statut yi di koy partagé naan jot na jot nañu murid di am banque banque murid ca banque murid ci kaw àll googu nag am yenn waxtaan eh, bennoo bennoo ñaaroo ñaaroo eh, kii ko jiite woon di sunu PCA actuellement Serigne Mandaw Thiam féete Abidjan mooy PCA Rijal Holding président du conseil d' administration si lañ ci waxtaanee mu créé groupe WhatsApp groupe WhatsApp yi murid yi ak seen àll am na loo xam moom bu nu ko yëgee rek kenn mënatu leen téye defe ci waxtu gi nu jàll rek groupe WhatsApp bi yegg si cent euh, membres. jékki-jékki yegg deux cent jékki-jékki deux cent cinquante mu doon loo xam ne moom mbirum sëñ Tuubaa la rek ndax eh, li muy def ci taalibe yi ñuy dajaloo ci loo xam ne dafa laal Touba wala dafa laal yoonu murid daanaka kenn mënu ko natt kenn mënu ci natt te da ngay xam ne doo ci dara waaye nag eh, yàlla defal nañu tawféex tamit li aal gi di bari ak li dajaloo di bari waxtaan gi ñu commencé woon seq doo doon waxtaan boo xam ni xam-xam moo ko jiitu woon. Eh, xam-xam bi nag moo doon lalu xam ni banque murit naam am na solo. waaye dafa am fu mu war a jaar du banque du loo xam ne da ngay teg sa kees rek daaj ni banque ngi noonu te eh, xëy na am na lu ñu si yàlla mayeen tuuti ci xam-xam ndax jaar nañ ci banque eh, ci côté côté bi ci gënoon am solo mooy wàllu audit eh, responsable contrôle interne xamoon nañ tamit disposition légale ak réglementaire yi audité nañ banque yu bëri aussi dans la sous-région xamal ni nag du mbooloo rek da ngay jóg rek donte amoon nga xaalis bi nii da ngay taxawal banque rawatina nu yoon murit taxawee nga xamante ne doonoon yoon boo xam ne ni nga ko junjee sànq euh, suñu autonomie daf nu ñor te banque moom da nga doon koo xam ne da ngay tënku da ngay am kili kilifteef muy banque centrale kon mu am ci benn donc euh, loo xam ni buñ koy bàyyi xal rek dinañ xam ni approche bi du approche wu aal si la ni bu dee loolu xëy na léegi-léegi du mën nekk waaye li gënoon jofe mooy bu banque murid doon am tamit kan moo koy téye ndax dañu oo murid ci monde bi yëpp ñu ñëw ndax da doon muridu fii muridu fële kon il fallait que ñu mën a am li ñu wax naan li sëñ Abdoulaye di wax naan la ngeen bokk balaa ngeen koy mën jëriñoo faaw ngeen yow ko ba mu doon aw say saw yooyu nag fallait que ñu mën ko définir xool loolu tey jii bu sëñ bi yombaloon ni nu banque baa ngi nii la mooy nekk li naan euh, véhicule juridique bi mm. ci kaw loolu nag lan xam ni kon jaadu na ñu mën a am déjà loo xam ni moom moo nu boole mm. loo xam ni du li fi nekkoon masalan dayra du ONG du association. Mm-hmm. waaye doo doon loo xam ne société am na muy doxee. ñoo génn ci loolu am comité pilotage bu ñu teg euh, comité pilotage bi di ci waxtaan di ci liggéey am ci ànd ak ci borom xam-xam yu bari si yoonu murit foofu la ñu amee li ñu ko wax naan la groupe compétence borom xam-xam yu nekk ci monde bi yëpp ku nekk indi ci sa xalaat ñu tënk ko bu ñu ko tënkee nag euh, si leen xam ni waxtaanu whatsapp moom waxtaan rek lay mujjee. Mm-hmm. waaye bu dee dañ nekk ay responsable am lu ñu bëgg xam ne yoonu murit yoon jëf la fallait que ñu génn WhatsApp rapidement mm. ci loolu nag dañu commencé structurer pour créer li ñu wax naan société d' investissement murit mm. bu njëkk ba sax sim lañ ko doon woowee société d' investissement murit ñu d' ci loolu commencé ko nas juridiquement ndax puisque société la fallait ko mu dëppook li nu wax naan le droit OHDA Euh, xam la moo ci gën a yemb. finalement ñu opté ci li naan société par action simplifiée à capital variable ak conseil d' mën ko commencé que rëdd rëdd statut yi foofu tamit mu amoon lu fa xawoon doy waaye ndimbal sëñ bi ak yàlla suñu borom feeñ fa bu baax ndax booy nas loo xam ni murid yee ko bokk. te mu war a weesu suñuy jëmm te mu war tënku ci loo xam ne du soppeeku ilaa yow mi din mm-hmm. fale ko xam-xam taxaw. Mm-hmm. kon moo tax eh, SIM bi ñu koy nos eh, dañ ko def mu nekk société à capital variable avec objet social investir dans Touba et dans des projets mourides hmm. objet social bi loolu la mooy loo xam ne daanaka kenn mënu ko wëlbati du man du kaneen du Massamba ak ku mënti ñëw loolu ni noonu la ñu tëggee statut investir dans Touba et dans des projets mourides à impact économique. du moomeelu kenn. Hmm. waaye am na kenn goo xam ne moo ko téye kenn goo xam ni ku mënti ñëw tamit ci gannaaw ak noo mënti toll ak dara joo boo mënti aw loolu doo ko soppi. doo ko soppi ndax booy rëdd booy nas loo xam ne pour génération yu ñëw la. Mm-hmm. fallait que ñu bàyyi xel bu ëllëgee. Mm-hmm. bu nit ñëwee ne yoon naa cent milliards. Mm-hmm. ndax kooku du soppi taxawaayu société bi waaye ni ñu tëggee société bi boo indi woon budget Sénégal tamit doo ko soppi. doo ko soppi te mënoo ci dara. ndax catégorie action lañ ci def te action yi nga xamante ne ñooy keno bi euh, loolu daanaka kenn mënatu ko émettre. te ñooñu ñoom ñoo yor kenn mënu ko émettre kenn mënu ko jaay kenn mënu ko weccee te loolu moom moo téye kenn société mm. ci gannaaw ga nag lañ doon ut tur bi rijaal euh, bi ñu ko proposé yàlla dafa doon taw feex ñu amoon ci euh, njabootu sëñ bi euh, ñu leeral ni turub rijaal baat bi baatub góor góor yàlla mm-hmm. waaye góor yàlla dans le sens liggéey dans le sens taxawaay dëgg muy symboliser ñaari valeur mm-hmm. le symboliser maam Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni ku ko tudd xam ne tudd nga yoonu murit mm-hmm. waaye di symboliser aussi euh, li naan culture du travail nga xamante ni sëñ bi daanaka loolu lay euh, sas murit bu ne gannaaw jàmm yàlla liggéey moom mënta ñàkk si lanu jàpp tur bi daf ko tuddee ko Rijal Oldi euh, loolu tamit am na ci taarix bu si amoon solo bu sëriñ Manel defoon Euh, sëñ Manel naa nag si njabootu waa kër sëñ Saliou Fall bokk tamit ci membre fondateur mhm. yàlla defaloon nag defal nu tawféex ñi sequ liggéey bi euh, doonoon ñoo xam ni daanaka ñun ñëpp kenn gisantuwu ci woon mhm. déedéet ñun ñëpp kenn gisantu ci woon euh, boo xoolee dix membres fondateurs yi ba ni nii sosee société bi da nga xam ne sëñ Bamba ak Touba képp ñu boole mhm. képp man maa ngi woon Sénégal Mandaw mi ngi Abidjan ñii ñi ngi marok kii mi ngi Nigéria kii nekk Abu Dhabi ki nekk France ñi nekk États-Unis euh, ñi nekk France ñi nekk état ñi nekk Italie. ñi mm-hmm. lan toll. kon mu wóor nu suñu teeyaay bakkan ni sëñ bi rek ñu boole ak xoolu wóolu sëñ bi kepp daal mm-hmm. ba nu démarré tamit euh, woote bi ak ci ñi ñu commencé ñëw contribuer ña koy def tamit xamuñu nu ñun. xëy na suñu photo wala dugg nañ ci Google xam làmb tuuti kan mooy Mokhtar Sarr. kan mm-hmm. mooy sëñ Mandaw waaye la ca ëpp solo te ñu ngi koy fàttali saa su ne ba nit ñi commencé si ñëw mooy Touba ak sëñ Touba ak yoonu Murid képp mm-hmm. loolu mooy histoire yoonu Rijal ci noonu la ñu defee suñ premier tour de table cinquante million testé ko mu jàll gaaw ci lu gaaw sax mu di di de cent mille francs à montant bu ñu bëgg joxe maanaam yaatal ko ba ñëpp xaj ci euh, ñu def cinquante millions yi mu gaaw lool defe naa ne bi ñu boucler cinquante millions yi entre ak juillet. Mhm. conseil d' administration 9 août si lan ni faaw ñu commencé nag def dara. Mhm. ndax boo dajalee ay nit bën ñëw ñu dugg ci société loo xam ne mosul am ci yoonu murit ndax loolu dafa mat a bàyyi xel. Mhm. société d' investissement boo xam ne dafa murit yee ko seq. amoo ci benn murit boo xam ne da ngay taxaw ne maako moom mu ngi doog am ci yoon bi. te ku bëgg a bokk soo ñëwee ci euh, tënku saat bi mën ngaa bokk. ku bëgg bokk lien la boo duggee remplir ko équipe yi ci gannaaw saytu ko xool lépp ndax jàll yónnee la kayit nga jot kayit bi nga def say souscription banque ba nga jotaat ab kayit bokk di jot information yi di suivre li xaw. ndax yéen a saytu saytuwaale ci diggante bi ñi nga xam ñoo ñëw di bokk comme ni nga ko waxee bu baax a baax a baax ci seen identification ba nga xam ne nit du jóge fee euh, yor beneen idée yu la boo xamante ne mooy ñëw rek bëgg a dikk indi ko euh, waa Touba. ci wàllu koppar ak yu mel noonu ci xës ngeen ko dugal ba pare su ngeen nee ba ci biir mu am yeneen nu muy doxee lu bokkut ak euh, lam nëbbu ci biir bokkut ak lam feeñal ci kaw ndax loolu yéen a ngi ko ciy bàyyi xel baax a baax a baax a baax léegi dafa am ñaari niveau mm-hmm. niveau bi mooy tey jii kuy souscrire euh, da ngay souscrire li naan sur les actions classe A mm-hmm. euh, boo duggee foofu la ñuy saytu ndax boo duggee ci formulaire bi di nga xam ni Rijal Holding société d' mu Mouride la mm-hmm. pour investir biir Touba la ak ci lu Mouride yi moom nii lay tëddee kon ku dugg rek dañuy jàpp ni sarso leer na ci bopp waaye amuñu sañ-sañu wax ni diw murit la wala diw du murit ndax misaal bi mooy daf ci am ku mos a souscrire ba muy souscrire dafa waroon souscrire turu juddoom waaye turub juddoom turub tubaab la waaye ba mu ko defee ba noppi dafa préciser ni ni dafa tuub tudd suñ fàllu <laughs> waaye nga ñun puisque ñun eh, kayitu juddu la ñuy la ñuy àtte passeport wala carte d'identité wala buñ sukkandiku woon loolu rek danaan kii de du ab murit te erreur lay nekk si ñun. Mhm. kon ñun kuy souscrire rek baa ngay souscrire di nga gis en préambule euh, li naan tarjumaan di nga xam ni ñii li moo leen tax a jóg nga bokk waaye boo souscrire ak loo fa mënti def doo jotee fa ñuy waxtaanee stratégie société bi. Mhm. ndax stratégie société bi ñu ngi koy waxtaanee ci conseil d' administration bi. te conseil d' bi ñu ko seq ñu ngi toll ci fukk ak. ñeent quatorze lañ quatorze ñooñu ku ci nekk tey jii mën na la wax fi nga juddoo kii mooy sa sëriñ fi nga topp mhm. ba egsi fii mhm. ndax man mii sëñ Murtada bu sëñ Modou bu sa jàng mooy sama ku ci nekk si ñoom ñi gër sëñ Fàllu ñii gër sëñ ku ci nekk si ñoom xam na fan nga bokk dem na sax ba euh, bi ñu ubbee bu démarré ku ci nekk sa sëriñ sax ndam la woon nga oo ko wax ka ne door na lii mu egsi fa mhm. kon ci wàllu googu moom dañ ci dalal xel ñu bari fa ñuy waxtaanee stratégie bi fa ñuy jëlee décision fa ñuy tëggee nas ak noot ci euh, ku mënti ñëw tamit doo ko jote mm-hmm. doo ko jote ndax am ngeen ci ay jafe-jafe ak yeneen banques yi wala ñi ngi yor wàllu banque wala dara laalewun dara ndax euh, ba ñuy door xam na lañ bëggoon mm-hmm. ndax banque li ñuy def ak ñun li ñuy def dafa wutee euh, ndax wàllum finance li ñu naan dafa am capital am dette am quasi capital euh, capital mooy loo xam ne sa poste lay jógee dugg ci mm-hmm. quasi capital mooy lu la kenn jox mm-hmm. daanaka ab diir waaye nga war ko delloo mm-hmm. dette nag mooy ab bor mooy li banque yi di def ñun nag bi ñuy door xam na ni li ñuy def du bor la ku ci dugal tamit danga xam ne capital la ay action ngay jënd te daanaka nit ñi xam nañ tuuti ndax ñi yoroon nañ action Sonatel ñi yoroon nañ action Ecobank si dëkk bi xam na ni action dividende moo koy fay donc loolu dafay dafay def ci leeroon bu baax. Mm-hmm. ba bi ñu rëddee suñu yoon di dem xam na ne yoon bii du yoon bu kenn mos a aw kenn jotu ci jaar xam na ne yoon bii tamit gëm na ni mooy yoon bi nga xamante ni moo mën a doxal dëgg dëgg dëgg économie réew mi ndax du lu ñu sos ndax sañ Bamba door jumaay njaare mm-hmm. door ko ci raay bi daf ko ci jumaay Tuubaa ba fi ñuy waxee yow. Mm-hmm. waaye loolu. dafa ëmb li nga xamante ni mooy mission wu xalif général bu fi mos a mm-hmm. toog mooy mm-hmm. un investissement spirituel mm-hmm. ñun nag ñu jël loolu jàngat googu bëgg ko teg ci li naan mooy un investissement productif li nga xamante ne mooy dirijaal di def dëgg-dëgg léegi nag euh, seen première euh, jéego seen sang ñu bëggoon nga dikkal ñu ci histoire bi euh, nan ngeen ko soose tàmbali ga ak moom tamit ndax comme que société bi taxaw na léegi am na action yu ngeen tàmbali fas yéene ay nangam ay boutique wala dara tuddee ko seen sang léegi nag euh, loolu euh, foofu la ñu bëgg nga dikkal ñu ci euh, tàmbali bi foofu. waaw seen champ moom dañuy njëkk dawar ci baat bi mooy distribution. Hmm. ndax boutique de distribution la. Hmm. Rijal dafa am li naan ñetti mbir. Hmm. muy plan d' investissement politique d' investissement. auto am stratégie d' investissement. politique d'investissement mooy tey jii ñu suñuy investir ci lii dañuy investir lii duñ ci investir lii duñ ci dugg lii dañ ci dugg këyit la goo xam ne conseil d'administration bi tëgg ko tey mm-hmm. euh, société d'investissement bu jaar yoon bu ne da ngay am loolu politique d'investissement mm-hmm. bokk la sax statut ndax statut sax moom daanaka ci notaire bi la mais lii mm-hmm. daanaka si technique nga xam ni voilà nga xam ni tey jii dangay xol fi jamono toll nga ni est-ce que tey jii na ñuy mën a investir ci secteur bu mel nii. Mm-hmm. est-ce que ñun suñu stratégie suñu politique d'investissement dañ ci boole di investir ci lu mel ne. jaayum mm-hmm. wala jaayum cigarette. Mm-hmm. wala jaayum li boobaa dañuy déjà tënku ci sartu jàngaleb Sëriñ Tuubaa. ñu xam ne suñu investissement li naan charia compliance la mooy dafa dëppoo ak charia. ak jàngaleb Sëriñ Tuubaa mooy di si jiitu lépp loo xam ne dafa xaraam duñ ci investir. loolu suñu politique la mooy politique d'investissement. après ñu egsi ci stratégie d'investissement. stratégie d' investissement mooy bu ñu d' accord ni dañuy investir ci lépp lu dul lii. Mm-hmm. naka la ñuy investir. ndax dañuy fekk ku yor dara ñu investir ci moom. Mm-hmm. ndax dañuy sàmm te fekk loo xam ne ñun ñoo koy sosal suñu bokk investir ci. Mm-hmm. wala dañuy fekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu ni dugal nañ ci benn kaay dugal ci ñaar kaay dugal ci ñett. ci ginnaaw loolu ndax dañuy dugal capital wala ndax dañuy leble wala ndax dañuy fekk koo xam ne danga soxla weccet. pour génn ab conteneur ñu jox la ko nga génn sa conteneur fay nu mm-hmm. loolu dugg ci stratégie mm-hmm. ñu nos ko tëgg ko teg mm-hmm. ñaar yooyu noppee nag si leen teg stratégie triennale mooy ci ñetti at ñu ni léegi ci ñetti at yi ñun lii lañ bëgg liggéey li njëkk mooy gis nañ ni euh, distribution dafa doon secteur bu doy bu sensible li tax mu sensible mooy dafa am euh, mag bu ma naan ma foo fekk ñaar ñi toog rek taxawal xaar ma foo fekk eh, naar ak tubaab toog toogal xaar mm-hmm. am na lu fay waaj a xew ci loo xam ne ci dërëm lay jóge mm-hmm. eh, xëy na sax eh, du du lu ñuy wax seen flair bi ñu am ci business mm-hmm. te cër bi ñuy jox ci wàllu étude mbax damay faral di wax naan li nu jafe-jafe gin gën a am ci ci Sénégal ak ci yoonu murit mooy dañu fulaawul les travaux de recherche travaux d'analyse du marché fulaaluñ ko jàpp na ne tey jii boo fayoon nit ni ko analyser le marché Touba nu mu orienté consommation loolu xëy na xaalis bu nu sànni la. loolu la ñu ci ñoom te tey jii li naan euh, intelligence économique. Mm-hmm. foofu la toll. ñoom dañuy fay ay nit ñoo xam ne di da ngay toog fi nga toog sa nit oo la ni la maa ngi États-Unis dama am jotaay boo xam ne dama koy seq ak ay borom alal ñu ñu jox na sa tur ni dañ bëggoon waxtaan ak yow. 30 minutes. 30 minutes yi 1000 dollars la la ci fay. ñoom da lay ay questions. boo xoolee 1000 dollars 500 000 30 minutes. nga ne ah ayca bisimilah nga jël sa téléphone wuyu. ñoom ñu ngi gannaaw ñu poser les questions boo bëgg nga xam wax lépp loo xam ñu mun paree ci Moctar ñu jàll ci Doudou mun après ñu jàll ci Ablaye après ñu jàll ci Makumba après ñu jàll ci leen. bu nu noppee xëy na 1000 dollars yooyu boo ko multiplier par 10 personnes 10 000 dollars muy 5 millions waaye tëggal na leen rapport boo xam ni xam nañ suñu marché xam boo xam ni man Moctar li ma xam rek laa xam. Mm-hmm. duud la mu xam rek la xam. Uh-huh. waaye ñun ñëpp ak ni marché bi tëdd xamuñu ko. loolu foofu laay foofu laay expliquer <laughs> loolu mooy wane importance su xam-xam ak xam sa marché. Mm-hmm. ndax distribution du jënd ak jaay rek. Mhm. modernisation distribution bi ñu am nii nga xamante ne am na marque yu bari étranger yuy ñëw. Mhm. dafa am benn système de contrôle li naan yoon gi mujj. Mhm. jëmale ko ci consommateur mooy li naan le last mile foo xam ne tey jii boo ko téyee luy dugg ci biir kër yi ñu koy lekk rek ci yow lay jaar. tey jii eh, dem nañ ba dakaar bu bi bi li xew mujjee am nit ñi sax dañ xew a jaaxle xamante nu fu ñuy duggee. kon dem nañ ba façonné. Euh, consommateurs yi xamal leen ni bu ngeen waree lekk si ñun ngeen jënd si nekk fu nekk di leen proposer lu nekk à un prix souple mais loolu pour mu mën a am ñoo gannaaw di di produire kay bay kay yar kay importer xamal na la boo bëggee jaay ci man ngay jaar kon bu fekkente ni kii dafa yor industrie hmm. kii di importer kii yor ay ginaar kii yor euh, toolam di bay dem nga ba toll nen xamal la ni consommateur bi li muy lekk. Mm. ci man la ko jëndee. kon yéen li ngeen jaay ci man lay jaar tey nga économie. Mm. loolu mooy enjeu wu distribution fi mu mm. toll ñun nag ñu xam ni Touba dëkkub bañ la mos a nekk. Mm-hmm. la tax boobaa ba léegi egg fi xam na ni dëkkub bañ la du dëkk boo xam ne da ngay ñëw rek xuus jàll. ndax dafa am fu mu jaar euh, du dëkk boo xam ne sëñ bi da ko jël ci ay loxo. fi mm-hmm. mm-hmm. nekkuloon ci loxo kenn da doon dëkk boo xam ne lu. nasaraan bi mos a teg ci euh, jafe-jafe rek borom dëkk bi ak ay xalifam teggi nan ko ci jom ci mm-hmm. pas-pas ak ci wóolu yàlla suñu borom mm-hmm. kon mu jaadoon ñun bu ñu xoolee stratégiquement élément boobu nii suñu ay investissement yu njëkk il faut ñu contrôler le système de distribution balaa kenn di ñëw di ko def mooy moderniser la distribution dans la ville sainte de mm-hmm. boobaa nag mu laaj lii ñuy def nii une approche stratégique mooy du ñu dugg ci lu rëy parce que xëy na moyens financiers yi dajuñu ko mais day doon boutiques yoo xam ne c'est des boutiques correctes cent cinquante deux cent mètres carrés dem ba trois cent quatre cent mètres carrés jouer sur la proximité ba tey jii ku nekk ndaamaatu mën nga am fa jouer aussi sur le fait que ni boo fa duggee lépp loo soxla nga fekk ko fa. Mm-hmm. loolu mooy histoire seen champ. Mm-hmm. ci quintessence en tant que boutique de définition de distribution tur bi nag moom. Mm-hmm. li naan booy xeex ak borom fetal. te nga yor ab jaas yi faaw nga mhm. bari pexe loolu daanaka ay pexe la rek ba xam ni tey jii ñu bëri dañu ci jam naan nu tur bi mënoon a tudd moo di am am di xel koom mënoon a tudd toolu bàyyi euh, lële waaye nañu dindi émotion xam ni bu ñu tuddoon xel koom mhm. dana na romb te duñu xàmme ndax bu te fi tudd xel kom te xàmmewu leen bari nan donc stratégie la euh, soppiwul dara ndax visuel bi ci biti rouge la boo duggee ci biir couleur islam nga fay fekk muy verte. Hmm. kon li ñuy def lu ñu xam la fi ñu bëgg jëm tamit lu ñu xam la. aussi bien ci tur bi ci ak couleur yi waaye aussi li ëpp solo rek mooy li ñu bëgg offrir mooy ku dëkk Touba mën a dugg sa ndugg bu sell doo dox dox lu bari doo daw daw lu bari te mu nekk si njëg loo xam ni njëg lu jàppandi la comparé ak li nga xamante ni moom moom fa loolu hmm. moom mooy histoire u Seen Champ ñu toll si ñeent ci ndimbal yàlla suñu borom. Mm-hmm. di sant bu baax a baax. Euh, tey annoncé nañ travaux ndaamaatu cinq quatre plutôt ndaamaatu war a ñëw cinquième. Mm. ñu war am yenn ubbi ci 17. Euh, balaa at bi di jeex am yenn ubbi ci euh, juróom-ñeent. waaye loolu dafay àndaale nag benn supermarché bu mag a mag boo xam ni daanaka dina jëm ba sept cent mille mètres carrés incha allah rabbi. yëpp ci ci biir dëkk bi. yéen ngi xalaat génn kon xam naa ni wala euh, fi mu dëkk bi rek ngeen ciblé fi mu toll nii. moom stratégie bi moom ñaari baat la. Mm-hmm. Touba first moom Touba first mm-hmm. euh, bu ñu noppee li ñu seq ak borom dëkk bi ci dëkkam bi te mu ñaan ko yàlla suñu borom nangul ko ko te faw kenn def ko. Mm-hmm. te ñuy ay taalibeem lu am yéene def ko yaakaar naa ni euh, génn bi moom mënut ñàkkati. Mbàkke mënul ñàkk Njaareem mënatul ñàkk Daaru Muxti mënta ñàkk mhm. boobaa dana xam ne moom li naan romb sa buntu kër te bale woo ko mhm. dem ba ca bopp koñ ba di ko bale waane képp lu tudd mhm. waaye fi mu toll nii moom dañuy tënku ci de eh, développement sur bi dans la ville sainte de Touba buñ ko maîtriser ba noppi xëy na sax balaa muy daj dina def yenn sorti yu ndaw dem Daaru Muxti Mbàkke eh, Njaareem annoncer la couleur ñu xam ni ñu ngi ñëw waaye faaw ñu dajal dëkk bi ba noppi incha allah. waaw foofu nag li ñu bëgg a dugg nag ak yow ndax euh, da mel ni da ngeen di ñu bëri dañu wax ni da ngeen di njëkkante si ak ñi li nga xamante ni bi ñooy tubaab yi Auchan bi ndax ñoom euh, def nañ Dakar ba ñu ngi ñëw jëm si Touba ngeen njëkkanteeg ñoom ba pare jël lu mel ni seen couleur ngeen teg ko ba pare tur itam ngeen damm ci ñoom tuuti rek la nit ñi wax indi teg léegi loolu ndax mën naa loolu noo noo ñu ko mën a leeralem askan yi nga xam ni ñoo ci am dut ñu bëri sax neen ñoom ñoo ko moom yéen da ngeen làqatu seen ginnaaw itam loolu tamit baat boobu day day faral di kii bu baax njëkkante bi lu leer la fi mu toll nii njëkkante moo am. Mm-hmm. faaw mu leer. Mm-hmm. ndax économie dafa am baat bu français di wax naan la nature a horreur du vide boo toogee tuuti loo xam ne dañ ko war a def defuñu ko. Mm-hmm. di nga gis ko jóge ci àll bi ñëw def ko. ñëw def kon njëkkante bi lu leer la ñun xam na ko ñoom xam nañ ko te ñoom sax ci njëkkante lañ nekk. <laughs> ndax njëkkante moo tax fu ne fëgg benn romb Tiwaawan ni fëgg ndar ñu ngi koy liggéey fëgg an maris ñu ngi ubbi. ubbi ubbi nañ ko sax an maris ba noppi dañu bëgg tey jii képp koo xam ne yaa ngi def distribution bii Ndakaar ñu not la génn la ci mm-hmm. ñoom ñu ngi dawal Carrefour ñu ngi ci ñu ngi noonu di waajal ubbi lan joor euh, ubbi foofu kon njëkkante bi moom ku ko deful ko ne da nga xamul xew mm-hmm. lii mooy dëgg ku xamul li njëkkante dafa am ci wàllu distribution da xamul xew mm-hmm. kon faaw nit ñi mën nu jàppale pour que njëkkante bi mën a gën a gaaw ndax toog seetaan moom ku koy def ku ne euh, suñu musiba la faw mu am sot soto national faaw mu am sot soto muridema ci loolu daf may permettre ma jàll ci question boobu ñu naan euh, seen champ dañuy làkkatuñu gannaaw mm-hmm. seen champ Rijal Holding pour cent cent pour cent Rijal Holding neuf cent investisseurs murit ñoo ko moom neuf cent investisseurs murit ñoo ko moom mm-hmm. si 900 investisseurs murid yooyu ñëpp lañ ci fekk taalibe gi sang si seex yi paaleen ñëpp a ngi ci biir. Mm-hmm. ku nu yaakaar ak ku yaakaaru mi ngi ci biir investisseurs yi ndax loolu mooy suñu taw feex mooy ban jógee di dox am na ñu nu gàttandu fekk suñu ci liggéey bi gënu dalal suñu xel. Mm-hmm. suñu conseil d'administration rek sang si mi ngi ci. mooy ci waa kër Sëñ Saliou Fall mooy waa kër Taïf ñu ngi ci biir conseil d'administration bi. ci investisseurs yi tamit bari nañ ci sang si ñoo xam ne suñu ay sang la ñu ngi ci biir kon kenn daxanu ku jàppoon loolu yaa ngi ci erreur ku ko waxoon tuub ko yaa ngi ci erreur Sénégal moomu ko euh, astafurlah tubaab moomu ko nasaraan moomu ko étranger moomu ko muridi ñoo ko moom mu leer nañ couleur bi mm-hmm. mooy li may junj sànq xam nga ñi nga xamante ne ñoom lañ ko seqal Mm. seen capital social 35 milliards la toll. 35 milliards waaw. yéen 50 millions. xam nga booy xeex da ngay ànd ak sa xel. waaw boo ko boo ko boo ko àndul ak sa xel rek da ngay da ngay da ngay sa sa. kon tey ji boo xoolee li nga waroon li ñu waroon def ci boutique yi rek bu ñu tuddoon na neen. Mm. li ñu def ci boutique yi dinañ ko multiplier par cinquante. daf ko ci campagne communication ak marketing. pour que nit ñu mën nu xam. tey jii ku jàll spot RFM rek. Mhm. wala télé yu mag yi maa ngi tuub si tudd bi ma leen di tudd boo fa jàllee benn spot kese di secondes. deux cent deux cent cinquante trois cent mille. Mhm. nga war ko def pendant un mois. war a jàll trois quatre fois avant JT après JT. wala jàll si télé yooyu yëpp. campagne marketing képp bu nu tuddoon na neen bu ñu waroon def pour que nit ñu xam. Mhm. xam ñun defe naa ni dina mat ñeenti yoon li ñu investir ci boutique yi. xam nga kon loolu xel day laaj nga mën a am pexe pour wax naka nga mën a jaaree tey jii pour que dox bi gën a gaaw nit ñi xam la rapidement. ndax da amoon ñaari stratégie. xàmmee ak ràññee. xàmmee gi moom bis bi nu yàlla defee tawfeex ñu ubbi coow loolu moom ñëpp xàmmee nañu ndax ñaari fan yooyu moom lu ne dégg nañu ko. ci lu baax ak ci lu rafet waaye la amoon solo ci ñun rek. Mm-hmm. mooy ñu xàmmee la ca topp nag mooy ràññee gi ràññee gi nag moom ci lañ ne nii. Mhm. boobu baag léegi nit ñi danañ xam ni ah lii de ndekete euh, mook taa taalibe sëñ moom moo ko ñii xam ne ah ñii de sëñ Mandaw daanaka taalibe waa kër suñu fàllu la ah, ñii de xam ne sëñ euh, Buuna mi nekk Italie te jiite daayira itali bu foofu trésorier bi daanaka moo xam ni sañ sëñ Amdi euh, mi nekk itali xam sëñ Manel mi nekk États-Unis loolu mooy ci ràññee bi foofu lañ nii ndax duñ gan ci dëkk bi. Mhm. sama baay bi muy dugg ci dëkk bi ñetti at la fa 1950 Daaru Xuddoos si si sàkk. Hmm. kon duñ fi gan. kon ci loolu day am doxalin. kon nit ñi faw ñu bàyyi xel nii léeg-léeg da ngay du yo du ñu yombee rek ni ñu koy xalaatee rek nii. Hmm. waaw tur bi daal dafa waroon nekk moom suñu tool. dafa waroon nekk euh, toolu Baye Seex. Hmm. dafa waroon nekk euh, xel Xelcom tool rek ndax tur boo ko utee faw nga am foo ko jaarale pour que mu mën siiw. te nga koy jaarale pour mu soo du lu la may du lu la sa xaalis la. Mm-hmm. loolu moo indi stratégie bi ñu tudd seen champ am couleur yoo xam ne ku ko romb di nga nu xoolaat waaye boo duggee di nga xam ne ah moom day dafa xonk ci biti waaye dafa verte ci biir. Mm-hmm. nga laajte ñu leeral la. communication bi ñu ngi ci dox euh, boo duggee euh, Dakar di nga fa gis affiche yu bari seen champ Touba Bayeri Dial holding boo demee ci aéroport bi boo demee euh, fan résidence boo wàccee VDN di nga fa fekk écran yi donc waa Dakar saa ñu xëyee rek. ñu ngi gis seen champ Touba Rijal moo ko mm-hmm. loolu ñu ngi siy liggéey kon loolu dama bëggoon indi leeral boobu rek euh, ci question boobu euh, ñu gën ko yaatal xam ni du defuñu ko suñu tee bakkan waaye ci xam bu leer lañ ko teg te murid yi ñoo ko moom te kenn sequnu te kenn sequnu suñu diggante ak Serigne Touba daanaka euh, am na ci lu bari loo xam ne sax ruusale nañ ko wala jomale nañ ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu gis fii ci dëkk bi ñaare wala yoonu murid surtout wala Sénégal sax mën nañ koo gën a yaatal côté investissement. faraluñ ko di gis nit ñi di ko def lu bari maanaam bokk dara euh, faraluñu ko gis nit ñi di ko def lu bari dañu gis kenn ku ma man kay nekk ca jël say nit léegi nag nga wax bu 900 personnes bokk benn mbir ndax loolu euh, xalaat ngeen ci baax a baax a baax ndax du indi jafe-jafe ëllëg ci euh, côté séddoo baak yu mm-hmm. mel noonu ak nan ngeen ko tënke ba nga xamante ni bii dana leer ci bopp kii dégg nii man moom fi mu ne nii da dafa maa xaw a lëndëmal loo xamante ni bii 900 personnes ñoo ko bokk. léegi euh, kenn ku nekk indi ngeen am capital pour mën a euh, def investissement ci dara léegi nag loolu ngeen tàmbali euh, di dox nii nànk-nànk nan ngeen ko fas lan ko tënke ba nga xamante ni kenn ku nekk ku ci dugg na leer sa bopp ni yow lii su su nàngamee danga am nàngam soo ca paree danga am nàngam ba lépp mën a leer ci bopp ñi ñi ñi mel ni man. du du du loo xam ni dafay dafa jafe. Hmm. ndax société yi nga xamante ni dañu li nekk li nag dañu côté en bourse. si bourse BRVM bi bu Abidjan bi bu jëlee société bi ci gën a siiw ndax ñooñu bi ni ubbi seen capital li ñu daan li ñu appel public à l'épargne bi ñu koy def daanaka ñu bari souscrire doon ci jëndoon ay actions Sonatel xamante ne da ngay dem am des centaines actionnaires mm-hmm. ku ci jënd action tamit xam nga ne jëndee nga ko vingt mille la boole ak la li nga xamante ne mooy tax nga mën a àtte sa bopp sa diggante ak société bi lu leer la. lu leer la. mooy statut ak OHADA. OHADA hmm. mooy règlement bi nga xamante ne dafa wax ni bu at bi jeexee commissaire aux yi dafay arrêté compte yi. Hmm. ñun suñu commissaire aux comptes Mazar la ci daanaka ñi gën a xarañ la nekk. Hmm. te bokk Sénégal conseil d' administration moo ko fa bu ñu arrêté yi xam ni nangam nañu dégagé si résultat net boobaa conseil d' administration bi dafay dajale ant validé loolu waaye fa sañ-sañam yam boobaa day def proposition de distribution de dividende bu dee yow da nga yor cinq actions. Hmm. soxna si yor dix man ma yor benn kii yor ñett dafa am jotaay bu ci topp mooy bi ne AGO. Hmm. boo xoolee sax bu ñu ba mois de mai société yu bëri dañuy convoqué. Hmm. ni ñu ngi convoqué actionnaires yi en assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes annuels ak sur la distribution des dividendes. ñu mën a ñëw ñëw ñu mënul ñëw yónnee ku ne représenté. kon du lu jafe. Hmm. chaque anne dafay am Ecobank da koy def Sonatel da koy def totale da koy def ndax ñoom tamit dañu def appel public à l'épargne ñu bëri jënd ci ñun tamit bañ ci toll dañ koy def. Hmm. incha allah rabbi boobaa tamit ndaje boobu moom moo naan valider nañ ni résultable ni li ñu ni mu toll dañu koy investiraat wala dañuy fay action bu ne nangam dividende. Hmm. ñu ni action bu ci nekk dañ koy fay 1000 francs wala 5000 wala 10 000 dividende. ñu valider ko. on met les dividendes en paiement koo ci amoon dix actions bu dee mille francs la ñu validé nga am sa dix mille. Mm-hmm. bu dee cinq mille la nga am la nga war a am ñu fay la ko ñu continuer doxal dox bi. Mm-hmm. du lu jafe du lu ñu sos du lu ñu ubbiwaat bu ñu demee ba toll ci un million sax te mën na nekk te fa lañ bëgg jëm loolu du am jafe-jafe ndax boobaa la ñu war a séddoo mooy gën a yaatu rek xëy na du fekk ni euh, day fekk moktaar yor. Euh, bu nu amee résultat boo xam ne résultat un milliard la un milliard yi bu ñuy fay dividende xëy na boobaa dañ naan action bu nekk cent mille lañ koy fay dividende. Mm-hmm. boo yoree ñaari action nga génnee cent mille te action ñaari action daanaka cinquante mille vingt cinq mille plus vingt cinq mille ndax mm-hmm. kon loolu noonu lay doxee du loo xam ne dafa jafe du loo xam ni dañ koy sos ñun loo xam ne loi moo ko tënk. Mm-hmm. te loolu mooy li intéressant ci Rijal. du mbootaay boo xam ni. dañuy dajaloo rek di xool li ñu neex ñu def ba ñu décidé ni dañuy am RCCM am NINEA nekk forme société bi am commissaire aux comptes muy certifié lañ tënku ci lu bari loo xam ne sosunu ko waaye loi moo nu koy permettre ñu teg ci te loolu dafay permettre ñu xam ni sunu ambition mooy nekk une des plus grandes sociétés de ce pays mm-hmm. di téye ko ñuy mën investir ci lu seen champ tey waaye investir ci mbay mi investir ci industrie yi investir ci banque investir ci leneen ak leneen mu dëppook suñu jàngale sëñ bi te dara loo xam ne du génn muy développement yoonu muy ak teg développement Sénégal. kon yemul bëggu leen a yem ci wàllu euh, jënd ak jaay rek war ngeen dem ci transport beeg ci surtout Touba bi amee jafe-jafe ci wàllu transport jamono yi ak euh, ci wàllu mbay meeg lu mel ni ki noonu ak euh, université bi nga xam ne sëñ bi waajal na ci lu mel noonu lépp ban taxawaay ngeen ci na ma am li ma ko waxee sànq dañu am plan stratégie triennal ñetti at. ñetti at ndax nit bu ñuy dox faaw ñu am objectif. Mm-hmm. bañ a teel a rek di dem. Mm-hmm. bañ a teg fu loo xam ne tamit xëy na bu àpp ba jotee xëy na lu bari dañuy échappé. Mm-hmm. si plan stratégique triennal yi développement réseau Sen Champ moo ci nekk. Rijal Express. mooy wàllu distribution bi tamit commencé naan sax ñu ngi koy def fi mu toll nii. Rijal Money. ma Money mooy plateforme transfert d' argent boo xam ne yoonu te loolu ñu ngi ciy liggéey am nañ yéene balaa at bi di jeex ñu lancé ko. Mm-hmm. macha allah te Rijal man yi da doon loo xam ni bu ñu yàlla defaree tawféex li nit ñi di jaar fi mu toll nii ci euh, plateforme de paiement yoo xam ne ay ñu fi gana ko moom. Mm-hmm. xëy na dinañ jaar ci loo xam ne ñun ñoo ko moom. ak op option yu gën a baax option yu gën a xéwale te économie boo xam ni du ñu bàyyee te suñu dërëm di tegu ci loxo yi ci biti ndax ndax Touba faaw ñu xam benn mbir. Mm-hmm. dafa am ñaar ñaar yoo xam ne dafay naat ginnaaw diine hmm. bi njëkk mooy consommation hmm. Hmm. ndax bu nuy wax naan Touba deuxième ville économique du Sénégal c'est sous l'angle consommation mooy dëkk boo xam ne bis boo xëyee rek wàllum consommation dana weesu milliard di dem bu mooy wax consommation moom mooy tëgg ci wàllu li ñuy lekk ci wàllu carburant ci wàllu téléphone wàllu banque wàllu assurance ci lépp ndax c'est la deuxième ville euh, en termes de population loolu boo ko xoolee rek nga xam ni kon société bu nekk rek da nga am intérêt nekk fi mm-hmm. muy benn beneen ba ca topp mooy xaalis bi fii circulé mm-hmm. naan na fi naat goo xam ni boo génnee Dakar fii moo ëpp densité bancaire mm-hmm. li fi nekk ci banque Dakar rek nu ëppale waaye ginnaaw Dakar Touba moo ëpp banque te loolu la ko indi mooy dinañ ñëw plutôt pour capter épargne bi pour capter les flux ndax banque bu fekkente ne amul ay dépôt daanaka xëy na dafay dem lebi banque centrale rek. Hmm. te bu lebee banque centrale la mu fay lebee xëy na 3 pour cent 2,75 alors que bu ñëwee Touba gi xëy na am na koo xam ne dollar intérêt danaa mën naa fi bàyyi benn 300 millions rek. waaye soxlaa gu ma ko. soxlaa hmm. kon loolu mooy manne financière boo xam ni faaw ñu dox ba tey jii ñu mën ko capitaliser mën ko dugal ci circuit boo xam ne circuit bu wóor lay nekk mais circuit boo xam ni. xëy na ni ko banque yi di utiliser di ko lebal feneen. Hmm. ñun industrie investir ko ci mbay mi investir ko ci euh, pôle yu bëri yoo xam ne tey jii dinañ ko teg ci schéma stratégique bu leer naañ lépp mën a àndandoo téyante mën a yegg ci. Mm. kon pour tontu ci question bi am nañu yéene laal secteur yu bëri waaye dañ koy teg ci yoon. Mm-hmm. trois ans yi moom ci kattan yàlla suñu borom distribution la ak Rijal Mani. Mm. di leen poser nag les bases pour que ñu mën a am notre premier établissement financier xoolaale aussi le côté industriel. bu ñu waxee industrie nag. Mm-hmm. faw nga mën a laal wàllu mbay mi ndax. mbay moom boo ko maîtriser wul industrie daanaka du mën taxaw. est-ce que jotul ngeen def ay communiqué wala ay affiche pour nit ñi gën a ubbeeku ci ci mbir mi ndaxte comme ni nga ko waxee ñu bari jàpp nañ ni waa ñoo ñëw def ko ci biir dëkk bi ñu bari. loolu moom faw ñu gën ci góorgóorlu waaye gën ci góor góorgóorlu bi dafa laaj ñaar mel euh, ni mooy koppar. Mm-hmm. Euh, ndax bu fekkente ni da ngay investir xëy na sax commencé nan euh, commencé nañ euh, def affiche yu bari fi mu toll nii. Mhm. mais dañuy maîtriser wala toujours suñu budget de communication. Mhm. mais euh, defe naa ni euh, point bu am solo la. Mhm. te ñu ngi ci doon waxtaanee rek conseil d' administration bii mujj. si weeru mars bi ndax chaque trois mois dañuy am daje conseil d' administration pour saytu liggéey bi. xool nu mën a gën a yokk wàllum communication bi. nga xam naa ne am na ci liggéey boo xam ne faaw ñu mën ko ci dolli gën ànd koog yéen ànd koog yeneen médias yi nga xamante ne ñu fi incha nag su ngeen xeex bu toll noonu. Euh, ñee jóge France ñëw def investissement bu toll ni wax milliards yu bari yooyu ngeen tàmbali ndànk-ndànk nag euh, fas yéene nag euh, xeex ba Sénégal ngeen daj fa kap mhm. ba li nga xam ni moom la tubaab bi ñëw France ak yu mel ni ki noonu mu ci suñu alal yóbbu waat France ngeen fas yéene taxaw nag lépp desaat ci réew mi mhm. lépp desaat ci dëkk bi loolu ndax na jàpp nga ni xeex la boo xamante ni bii dina yomb ak yéen ak itam euh, ndax da nga jàpp ne leen bàyyi ci wàllu yoon ndax ni ngi leen xaw a copier coller fee mm-hmm. copier coller fee ci wàllu communication ngeen dox ci ñoom ba nga xam ñëpp xam ne dox na ngeen seen kaw ba ñoom am nañ jafe-jafe surtout maa ñu ñuy bërit ñuy lakk dëkk bi lakk seen lépp yéen ngeen indi photo Sëriñ Tuubaa teg kenn laalu seen dara mm-hmm. léegi foofu loolu loolu nan nga ñu koy expliquer yow wàllum yoon moom defe naa ni am mënuñu lu bari ndax euh, seen champ euh, Rijal bi muy taxaw dafa jël option tegu ci yoon. Hmm. Hmm. loolu moom euh, ci lépp loo xam ne dañ koy dox dañuy tegu ci yoon di ci góorgóorlu suñu kéem ci lay kàttan rëcc rëcc bu ci amee sax dañ koy corriger assez rapidement. Hmm. dañ nekk ci marché ouvert boo xam ni xëy na doomi réew mi sax dañ leen gën a suufeel gën leen ñàkkal solo que ñuy jóge ci bitim réew ñëw ci wàllu boobu. ndax te jii ku jóge bitim réew ñëw. Euh, boo góorgóorloo tuuti mën nga seeti ministre bi seeti directeur de cabinet bi seeti euh, conseiller technique bi toog waxtaan ak ñoom ñëpp génn ñu taxaw photo ak ñoom génn jàll ci leen alors que doomi réew mi dañ fi nekk di def loo xam ne tey jii ku leen jàppale woon tuuti rek xëy na mu dem. Mm-hmm. loolu boo ko xoolee rek xeetu complexe la boo xam ne daf ñuy tàddeel ci lu bari. Mm-hmm. ndax euh, état partenaire la war a nekk pour pour pour le secteur privé bu ñuy wax état nag xëy na le mot dafa xaw yaatu. waaye c'est les acteurs de l'État mm-hmm. faut faudrait pas que tey jii moom laay wax euh, junj keroog ci benn waxtaan nit ñi jàpp ni euh, buruxloo pour seet seeti ministre bi wala pour loolu def def na ko jaral mm-hmm. jaraluñ ko mm-hmm. toog waxtaan ak ñoom xam li ñuy def lu war kon bu nu séenee ñuy def dara war na mën a xool li ñuy def lu mu doon loolu defe naa ne dafay bokk ci li nga xamante ni moom mooy naatal réew te moo tax dëkk bu mos a rek loolu moo ko indi ndax dëkk bii di dëkkub diine mm-hmm. ba nu waree taxawal diine bu sëñ bi jëli woon ay imaam naar mm-hmm. ak naayim naar teg leen fi xëy na boobaa lu bari du dox mm-hmm. waaye lépp loo xam ne sëñ mu ko doon dox dafa wane ne nit ku ñuul yi nga xam mën na ko incarné mën na ko dox te loolu mooy dox ba léegi loolu dañ ko gëm profondément te état bi tamit defe naa da cee war a gën a jox jéego mooy le complexe de de de étranger wala jàpp ni euh, ñi nekk ci dëkk bi yoruñu xaalis lépp du xaalis su koy def. ndax ñun lu mu bon bon bon tey jii avec seen champ on est sur un niveau d' investissement boo xam ne ñu ngi ci cent quatre vingt neuf cent quatre vingt dix millions. ubbi nañ ci quatre boutiques créé nañ ci soixante douze emplois te ñu ngi dawal. macha allah ñu ngi dawal ndaamaatu bu ñëwee muy cinq boutiques balaa at bi di jeex incha allah rabbi bëgg nañ ubbi neuf boutiques. kon tey jii euh, am nañ des moyens. peut-être mm. pas des moyens yoo xam ni mën nañ ci. Euh, tuufal kii dara tuufal ko ci dara ni nga xamante ne mooy tax ñenn ñi mën gis ministre te duñ ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. nekkuñu ci pratique yooyu. Mm-hmm. waaye ku ñëw jàppale nu ah yéen de ci li ngeen nekk nii lu jaar yoon la te da ngeen dañuy joytu utub xëyum liggéey te yéen a ci jàpp yéen a ngi créé ay liggéey ci jàppale ñu xam ne kon lu nu yelloo dong la daal alal bi état yor sunu alal képp la boo xam ne dañ ko fay mu jël. loolu mooy li njëkk la ca topp mooy xeex bii ñu jëm li may wax sànq la naan amul toog seetaan. da ngay féete fii baa nga xam ne fële nga féete ndax li ñii bi ñëwee si diir bu gàtt ñeenti at. ñeenti at nga jël lu toll ak trente cinq milliards capital social képp laa la wax waxuma la sax financement bancaire bi ci topp. nga xamante ni mën nga dajale un chiffre d'affaires mensuel boo xam ni tey jii lu mu bon bon bon bon bon quinze milliards. quinze milliards weer si chiffre d'affaires téye Dakar songu Mbuur téye dem Thiès ubbi dem Tivaouane ubbi fa ñaar. Mhm. Thiès ñaar lañ fa ubbi dem Tivaouane ubbi romb dem Saint-Louis ubbi dellusi waa Dakar téye kon ñooñu xam nañ li ñuy def. ñun nag. Mhm. sëñ Tuubaa lañ am. Mhm. Tuubaa lañ am. Tuubaa bi bu amoon bu amoon bëgg Tuubaa du taxaw. kon. bu fekkente ni gis nañ lool di am faaw ñu am taxawaay boo xam ni taxawaay bu wér lay doon taxawaay boo xam ni dana xam ni la sëñ bi doon woote ci autonomie. Mm-hmm. taalibe yi ñu ngi ciy dox. Mm-hmm. ndax sëñ bi moom lem ni jàngal jàngal nañu ko ba noppi. Mm-hmm. sëñ Muntaxa ca la moo daan a mang ca waaye du sëñ Muntaxa moom mooy dem ubbi ay seen champ. wala moo war a dem utali xëy Massamba wala ma dem moom. li caractère spirituel dëkk bi lay téye. Mm-hmm. ak yombalal bépp murit boo xam ne dëgg fi ñëw tey jii pour dox. Mm-hmm. ci li wax naan danañ dox jamono ba li ko fekk si dëkk bi. Mm-hmm. loolu murit yee ko waaye bu nu nag ba ñeneen ñëw def ko nag boobaa ñu xam dana tar lool ak sunu dëgg ndax kenn si ji. kon la foofu la foofu la jotaay bi toll fi mu toll nii seen champs yi alalu murit yi la sunu yéene mooy dem ba yombalal jënd mi. murit yépp ci dëkk bi ubbi ndaamaatu ubbi janatu ubbi garage daaru 28 daaru maanaan de corniche euh, Guédé HLM euh, Isbu dajale lépp 17 hmm. boutiques yi moom mappé nañ ko lu ci nekk xam na ko ku ci am euh, kër goo xam ne jàpp nga ni yemb na nekk nañ ci booru tali bi te mën ngeen ko yembal hmm. dañuy jël te loolu ñu ngi ci sant bu baax a baax ndax kilifa yu bari wax dëgg fa yàlla ba ci nindi gi nindi buñ ko xoolee rek xam ne sëñ bi la ndax bi ñuy paree daaru xuddoos naan nañ dallu tuuti lan nu xamal ne nindi gi mënoo leen dallu <laughs> waa kër sëñ waa kër sëñ Fall waa kër sëñ Abdou Karim ñoom xam ne lii faw ngeen ñëw xool ko mm-hmm. man ba ma ko xoolee bañ leen waaw lii de mënta mënuñu dallu mm-hmm. ñu ma doon liggéey yëpp ñëpp loof nan man leen waaw waaye mënuñu dallu mm-hmm. kon nga xam ni sang si ñu ngi jàppale ci li ñuy def ndax bu ñu gisee li ñu dem na noonu ah bërëb bii de des ko bàyyi nii moo tax bi ñuy ubbi nit ñi sëñ Abdou Karim ci jëmmi boppam ak ci barkeelam jóg mm-hmm. ak jóg doxal boppam ba egsi fa moo fa njëkk a dugg defal na fa ñaan nga xam ni kon loolu sangu rëy la ak mm-hmm. cant bu rëy ginnaaw ga nag am na ci sang yu bëri ñu ne jàppale ci loolu waaye murit yëpp ci war a jàpp mm-hmm. muy ci siidi fi ñu nekk waaye jàpp ci lii tamit nga xamante ni ku ci dugal sa dërëm tamit sànni woo ko ci àll bi ndax li may wax naan euh, li ci am solo mooy balaa at di jeex dina rendre murit bu ci nekk fier xam ni ginnaaw association ak daara mën nañ def loo xam ni lu pertinent. Mm-hmm. te incha allah rabi bi dinañ ko def ci at bi at bi ci topp murid bu ci nekk di nga am dara ci nit ñi. Mm-hmm. loolu moom suñu jaayante la incha allah. jot ngaa nga ni état euh, ñaare euh, ñi jóge bitim réew lay gën a fullaal lay gën a faydaal ci euh, doomu réew mi. Mm-hmm. nga xam ne ñi fi nekkoon sax di góorgóorlu lu mu néew néew ñu bari da rëq nañ seen digg dam na seen tànk ba mënatuñoo dem yéen ngeen bëgg a yëkkati lu mel nii ak itam. yoonu murit fiir gi nga xamante ni état fiir na ci moom ragal gu mu ko ragal ci yéen ñu mel war a mën a euh, contrôler ëllëg économie gu réew mi euh, ci anam yépp nag ngeen wëlbali ko taxaw nag bëgg a concurrencer itam ak ñoo xamante ni euh, seen njaay ñëpp taxaw ni daay yomb na yomb na ndax mën ngeen a concurrencer waa Auchan ci ci njaay ci prix yu mel noonu waaye itam seen diggante ak état dox ka ca war dëgg dëgg dëgg dëgg mel da nga koo jot a laal rek waaye de bëgg naa nga gënu mu caa xóotal ba xam ndax lépp la ci war seen diggante ak moom ci demlanteeg joxalante bi ba mu leer Euh, am na ndax euh, ragal gu ñu ragal euh, yoonu murit ak lépp lu ñu yëngal yëngal rek. am suñu jëflanteeg état donc ministère du commerce dañu am rapport man personnellement donc yàgg nañ liggéey avant même actuel ministre bi bi fi ministre Aliou nekkoon. Mm. jàppale na leen ci lu bari réflexion yu bari via les démembrements muy ADPM e. ci réflexion yu bari ndax booba à l'époque amoon nañ ay préoccupations comment contrôler la l'émergence des grandes surfaces étrangères. kon am nañ ci jëflante cadre de réflexion euh, lii ñuy def nii tamit euh, je suis en contact permanent ak le ministère donc quand je dis le ministère mooy certains acteurs clés du ministre xam nañ li def. Hmm. gis nañ ko bis bu ne ñu xam ne ubbi nañ boutique bu bees xam nañ li ñuy jaay. Hmm. loolu loolu lañ sa xam la ca topp ñaanunu saraxunu te duñu ñaan duñu sarax ñoom ñoo mën a xool xam ne en tant que autorité de tutelle lii nii naka lañ ko mën a appuyer. parce que dañu am Sénégal benn problème boo xam ne mooy li ñu naan asymétrie de l'information. da ngay gis ay textes réglementaires yu génn wala ay euh, exonération yoo xam ne ñu fii fi wala ay faveur yoo xam ne ñu ngi fi mais duñ ko siwal siwal boo xam ne ñaar ñetti ñeent rek ko koy xam. loolu la naan asymétrie de l'information donc ñoom ñoo mën a xam tey jii par rapport ak li ñuy def quels sont ban dispositif moo nu mën a permettre ñu mën ci jàpp ñu mën ci jàppale. kon. tey jii amuñu un rapport boo xam ne c'est un rapport pour dire que tutelle bi muy mhm. le ministère du commerce ñu ngi ci jàppale d'ailleurs je le leur reproche mhm. mooy bi fi mujjee organiser ndaje pour euh, la semaine ou la la quinzaine la quinzaine des des produits euh, locaux mhm. euh, invité nañ ñëpp invité wuñu ñu wax naa leen ko nee naa leen da nu fàtte xëy na waaye ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk te dara du ci soppeeku ndax bu fekkente ni li ñuy def sëñ bi tax ñi di ko def ak dëkkam Euh, xëy na am na détails yoo xam ne du ñu sonal. foofu lañ toll ak ñoom mais li may rassurer rek mooy euh, Touba dafa mos a affirmé wu ci li muy def. Mm-hmm. nëbbatuwoonu ragalunu yooruwunu ndax li ñuy def lu ni fàng la. Mm-hmm. kon lu nu ñeme la ñaara mën a am ñoo jàppale nu baa ñu toog seetaan. Mm-hmm. ndax dañuy seetaan rek nag kon ñoom ñoo nga ñaar yooyu rek mën a am. est-ce ah. xam nga dafa am loo xam ni eh, bi mm-hmm. na loo xam ni bi yoon murid di soxu am na loo xam ni mënoon na nekk. Mm-hmm. ba mu doxee am na leneen lu mën nekk. Mm-hmm. dëgg ba mu doxaatee am na leneen lu mën nekk. fi ñu nii am na loo xam ne mën nekk am na loo xam ne mënut a nekk. <laughs> dëgg est-ce que tiitu leen ci buñ ci jàppee am jafe-jafe am nga état moom lu mu nekk moom état moom defe naa ni il faut ñu xool fan mooy seen intérêt. Mhm. ndax mënoo ni da ngay lijjanti ay em xëy emploi pour ndaw ñi. Mhm. ba pare di xool entreprise yoo xam ne dañuy recruter nga leen indil jafe-jafe. xel mhm. mënta nangu loolu. xel mu sell. boo xamul benn jafe-jafe mënta nangu loolu. surtout que sunu kaawaay si li naan New York suma dafa leer. du dërëm bu nu foree ci àll bi. Mhm. du financement boo xam ne mën nga ci am sikk sàkk. Mhm. tey jii ba mu ne woon dërëm bu ci nekk mun naa la wax dërëm bu ci nekk. kan moo ko indi la mooy numéro passeport am la mooy numéro téléphone am fa la dëkk ñu ne ñu nii. ci lu mhm. leer lañ ko teg kon option yi bariwul pour l'état te li gën a yenu maanaa ci xel moo xam ne xel mu nangu la xel mu responsable xel mu lucide mooy xam ne lii dafa war a dem te dañ ci war a jàpp. bu ñu ko defee alhamdulilah rabbil alamin ça je lance un appel au ministère. Mhm. Euh, la ministre je l'ai rencontrée à à deux trois reprises. ses conseils aussi je les connais on échange régulièrement les démembrements de l'État aussi am na si ñoo xam ne jaar nañ fi bi ni ubbi suñu première boutique muy euh, waa ADPME. Euh, notamment lycée Diabéra ba ni ubbi Darou Manane maintenant écoute c'est à eux de voir dans quel sens on peut aller avec eux maintenant ñun on n'a pas de amuñu benn jafe-jafe ci wàllu nu ñuy gàggantalee bokkul suñu ay paramètres. Mhm. li am solo rek mooy ñun liggéey bi suñu loxo la ne. Hmm. ñoo ko mën a liggéey baa ñu bañ ko liggéey. ñooñu xeex bi buñ koy wax tamit nañ xam ne xeex commercial la. Hmm. xeex commercial fi ñuy jaar ñun ñoom fi ñuy jaar xam nañ ko ñun fi ñuy jaar xam nañ ko ndax euh, faw ñu comprendre benn mbir gis nga seen doxin bu gaaw. Hmm. capacité financière bu wër la. da capacité financière bi ñu ko amee li tax ubbi ubbi ñoom seen ubbi boutique yi gaaw dangay ngay bàyyi ñetti xel. ñetti mbir benn mooy dana ñëw racheter attaque. waaw supermarché yoo xam ne dafay newoon. Mhm. jënd ko boobu jàpp na ni loolu mooy ni gën a gaaw. Mhm. dindi seen enseigne daf. Mhm. ñu dawal tuuti xool yenn espace yi commencé jënd yenn espace tabax diggante bi ñu rombaat Sitidia ñu bëri fàtte nañ ko. Sitidia xam ne affaire bi ma xaw na compliqué si ñoom ñu tayle réseau bi. jël boutique yu bari dolli seen réseau te commencé tabax tabax Auchan euh, nu ñu koy waxee ci sa Mermoz tabax euh, Auchan euh, nu ñu koy wax ci génn tuuti dem parcelle commencé génn boobu ñu ngi ut taille critique boo xam ni bu ñu commandé fukk fa yow foo daan commandé fukk ñoom cent mille lañ fay commandé taille critique boobu moom moo am solo te loolu dañ ko réussir mm-hmm. mooy dem ba tey ji yow sa usine wóor na ni yow bu la Auchan commandé rek sa usine bi yëpp jeex na boobaa nag mu am ñaari mbir yoo xam ñoom si lañuy dox te absence de réglementation bi am ci dëkk bi moo yéeme ndax li nga xamante ne dañ koy tere faneen fii dañ ko fiy def mm-hmm. li ñu fiy tere mooy lan mooy nga xool ak fournisseur bi nga ne ko mu defal la discount mu wàññil la ma mm-hmm. ñëw ni la ah cheikh bi yow lii nga ni loo koy jaayee nga ni nga ni ma 1000 francs la koy jaayee nga d'accord man dama la ci jëndal lu bari waaye dama ci wàññi ma jëndee ko 800 francs nga xool ni mu baree nga ne waa nangul naa ko nga jaay ma ko 800 francs mm-hmm. yow ku ñëw foofu keneen ku dul ku jëndul nga jaayee ko ko 1000 francs su ma dem sama buti ma jaayee ko même prix que yow jaayee ko 1000 francs mm-hmm. wala ma jaayee ko 900. nga xamante ni ñu doon ñëw ci yow di jënd la ci gagné waaye cent franc yooyu bu fekkente ni volume bi toll na noo xam ni boo xoolee magasin ñu toll rek 33 boutiques nga xam ne cent franc yooyu boo ko multiplié par 33 boutiques ak le nombre d'articles nekk na beneen mbir ngi noonu loolu mooy benn beneen mbir bi mooy délai de paiement ndax euh, dañuy liggéeyee xaalisu Sénégalais yi mm-hmm. bu fekkente ni da nga ñëw tey jii ñu fay la trente jours wala soixante jours nga indi sa produit muy soixante jours. Mm-hmm. produit boobu bu ñëwee ñu jaay ko cash si ñaari fan jaay nañ ko waaye yow si soixante jours la lay fay. ndax jox la yow. waaw. dañuy téye ba deux mois yi mat. boobu sax dañuy commandé waat commandé waat commandé waat commandé. lépp sa xaalis donc nga xam ni. système système la boo xam ne tey jii <laughs> li leen ko may. mooy. seen taille critique bi ñu am. Mm-hmm. mooy investissement ci réseau bi ñu def. kon ñoom fi ñu jaar jaaxaluñu li am solo rek mooy ñun li nga xamante ni moo baax ci fi ñu ñoom fi ñu jaar ñu góorgóorlu ci suñu kéemtalaay kàttan. Mm-hmm. li nga xamante ni baaxul te dafay yàq yeneen acteurs yi. moytu ko mm-hmm. ndax tey jii am na si ñoo xam ne bu ñu jëfandikoo ñoom euh, boo defee benn commande bu la fayal dootoo defati dara. te loolu day yàq écosystème. day tax ba tey jii euh, ku ci amuloon moyen yu bari bu la livré benn day toog xaar. 60 mhm. jours xëy na indi na ko jafe-jafe. kon foofu nag la euh, sunu lucidité laaj pour ñu mën a xam dëgg-dëgg lan moo jar benchmarké positivement ak lan moo jar moytu ci ñoom li ñuy def. Mhm. waaye li am solo rek mooy euh, réseau bi moom faaw mu gaaw. Mhm. faaw ñu occuper le terrain. dëkkante boobu moom. lu wér la lu ñu war a def la lu ñëpp war a jàpp la. waaw yéen bàyyi woon leen ñoom ñu nekk seen euh, liggéey continuer yéen a ngi leen di song di recruter seen personnel di jël ji indi man gis naa ñoo xam ne foofu lañ doon ne yéen leen recruter foofu indi leen fii euh, yéen bàyyi woon leen yéen a leen song nag yéen ngi leen di song. non ñun sonalu leen xëy na ñoom seen ay naataangoo ñu leen sonal ndax euh, ñun daanaka lu ñu si jël ab daanaka lu toll ne tarfatan xëy na bu ñu si ñaar ñett lañ ci jël si personnel qualifié bi ay doomu sénégalais ay taalibe leen te da doon ñoo xam ne tamit Euh, du post rek moo tax ñu ñëw. Mm-hmm. projet bi moo tax ñu ñëw. Mm-hmm. am na si ñoo xam ne du poste moo tax ñu jógee euh, à la concurrence ñëw si projet bi ak li le fait que murid di porter projet bi moo tax ñu mm-hmm. ñëw. le fait ñu mën a xëyee fii ci dëkk bu sell bi di liggéey mën a ajjuma arrêté li ñuy def dem siyaare ji lu suba si wala dem julli ji jumaa dellu siwaat loolu moo bokk ci projet global bi ñuy proposé tey jii les acteurs. kon du recrutement rek boo xam ni dañ ko de euh, nit ñi dañ fàqe fu la ñëw te yaakaar naa ne ñoom niñ toll en terme d' effectif par rapport ak ñun tey jii mënuñu leen indil benn jafe ci ci ci wàllu boobu yaakaar moom xëy na nag seen naataangoo yi nga xamante ni ñoom ñu ngi góorgóorlu ci wet gi ñu mel ne Sibco Carrefour euh, xëy na ñooñu indi leen ay jafe-jafe yoo mais pas yaakaaruma ni seen champ fi mu toll nii euh, mën na indil benn jafe-jafe Auchan ci wàllu boobu yaakaaruma ko buñ fa soxlawaatee itam danañ fa jëliwaat rek incha allah. <laughs> na xam naa ne xeex bi ngeen sumbali damaa yaakaar yéen xamu leen ko moom. réew euh, gi daal ak euh, ni mu amee kattan doole ji mu am ndax ñun dañoo ndar képp ci anam yëpp xam nga tubaab bi moom dañoo tënk ci anam yëpp ndar képp ñu xoj ñu def ñu lépp rek ñun moom amuñu fu ñuy xool fu ci France xool. Mm-hmm. ngeen dikk nag fekk ñu def loolu. indi nga xam bi ñu soog a tàmbali sax histoire yi coow bari woon na. Mm-hmm. yaa ngi koy fàttali ku baax a baax a baax. Mm-hmm. waruñu fee ñëw dañ leen di génne coow li bari ban jàppoon ni Sénégal day tas ngir euh, Auchan war war naa génn dëkk bi warta continuer liggéey ba léegi nii saa yu xëyee dooleem di gën a bari nga xam ne kon ñooñu euh, seen euh, fañ teg seen tànk fu dëgër la état jàpp na leen ñeen jàpp na leen ba gis nga bi problème bi amee rek ci Ousmane Sonko affaire am yi loolu lu ñu tàmbali ñoom dañoo ñëpp dañoo ciblé ñoom seen boutique yi ni ñoom dañoo war a génn dëkk bi nga xam ñoom sénégalais moom bëgguñu leen seen xol mm-hmm. waaye teewul ñoom par force li ñuy def ñi ngi koy def te ñoo gën yomb dem njaay tam nee nañ ba note bi ñuy def. Hmm. dafa jiitu loolu. Hmm. note psychologique la. dëgg la. dana not ci xel. Hmm. ni notoo ci xel mooy jàpp ni ba mbir mi tàmbalee que ci wax rek lañ ko mën a dindee. te du woon ci wax lañ ko waroon dindee. dëgg la waroon càmbar xool ñi ni ñuy def nu ñu koy defee. mais bu dee eh, nit dafa jël teg nit bu fekkee daf la pes. nga toog bëgg ko laa ngi waxtaan. Mm. dina la pesaat pesaat la. Mm-hmm. ñu nag dañu pes ñu toog nii na fi jóge mm-hmm. te dañu waroon toog ndax bu dee xel mu ngi fi. Mm-hmm. bu dee xam-xam mi ngi fi ndax ñoom boo xoolee li ci ëpp tey jii même à l'étranger da nga fay fekk euh, sénégalais yu bari yoo xam ni seen xam màcc na xam-xam màcc na lool ci wàllu distribution. ñii di liggéey fii kon il était important dès le début bi li xew xamee ñu mën a xam ñii nu ñu fi def si. ñii fu ñu bëgg jëm. Mhm. waaye li ñuy def ñun lan lañ ci mën a tontu. Mhm. qu'il y une réponse effective. mais dañu bàyyi benn laps boo xam ne dañu toog amee wax ji rek. Mhm. amee wax ji rek. ñi amee wax ji xëy na mënuñu ko saafaraal ñi ko mën a saafaraal tamit xëy na seen xel jàpp na ne mënuñu ci dara. loolu nag mooy not gi na njëkk def. waaye mënuñu ci dara mënuñu ko saafaraal not nañu mënul am ci tubaab gi. boobaa ñoo xam ne ko li ñu sëñ bi njàngal yépp xamuñu ci dara. te mënuñu mm-hmm. ci dara. Mm-hmm. loolu mooy li wér ndax bañ moom faaw mu commencé fenn. Mm-hmm. te yàlla dañuy sant yàlla suñu borom ba suñu jaar-jaar ak suñu xam-xam ñu bari ñu ci liggéey euh, sëñ bi féetalu fépp am na lu ñu mën a jàng ak lu ñu mënti xam rek nu ñu ko mën a euh, soppee nu ñu ko mën a utiliser ci yoon bi ak Touba naat loolu ci loolu la ñuy kon defe naa ni. foofu la ñu ci wàllu ci wàllu ci wàllu réflexion ak ci wàllu note gi te nag faaw nit ñi nag arrêté wax ji. Mm-hmm. ndax wax moom mos a régler benn problème. Mm-hmm. Euh, Auchan dégage Modou dégage Ablad dégage bu fekkente ni ka ngay jënd foofu la gën a yombee da ngay xool lu tax mu gën fa yombee. problème technique la moom. tant que moom day tàlli baa ma banku. Mm-hmm. jënd mënuloo jënd fii wax ma feneen fu may jëndee foo xam ne donc la vraie bataille c'est la bataille du service de l'accueil du référencement et du prix. Mm-hmm. loolu xam nañ ko naxuñu ci suñu bopp. moo tax ñu doon wax naan couleur bi dafa xonk seen champ Modou champ Ablaye champ nañ góorgóorlu ba ku fi dugg rek na jënd loo xam ni dana ci bëgg dana ci kontaan te dana dëppoo li am posam. xam naa dañuy nuyu commerçant yi ci dëkk bi itam ak euh, ñiy góorgóorlu ñu ngi leen di ñoom itam li ngeen li ngeen li nekk seen kanam a bari. ñooñu li ngeen war a relever moom moom faw mu leer suñu ay partenaires lañ. Ah. ñooñu suñu ay lañ ndax. ñoom li ñu bëgg ci dëkk bi ñun moom lañ bëgg ci dëkk bi mhm. Mhm. xëy na tolluwaay ñu ute mais côté commerçant yi nekk ci dëkk bi da leen di santaale ñoom ñëpp ndax euh, bi ñu dooree tamit xool nan nu saytu nan nu peese nan nu euh, seen xel dal na ci jëflante bi ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy rafetal nu mu muy commerçant yi muy aussi acteur économique yi ñu wër. Mhm. ndax ñii di jaay ginaar ñii di jor ay nen. ñii di am conteneur am bagage yu ñëw daanaka ñoom ñëpp dañuy liggéey ak ñu bëri ñu ne ñoom ñëpp dañuy liggéey ñoom nit dañu yor bagage sam ba oote ñëw ni ah seen champ dama bëggoon liggéey ñan dem si nit abaat ginaar ni damay jaay ginaar ñu daanan am jafe-jafe fu ko jëlee ñu ko commerçant yi tamit noonu lañ seq ñoom donc c' est des yoo xam ne tey jii des ndax dañ bokk pas-pas mm-hmm. li ñu indi ci dëkk bi moo leen fi indi te fi ñu bëgg jëm tamit xam naa ni ñoom bu fekkonte ne lépp daj na sax ñoom ñoom ñu fi ñu mën ko àndandoo ba am loo xam ne dafay gën a kawe kon foofu lañ toll ak ñoom euh, di si profité di leen si sant ak di leen ci gërëm bu baax a baax. Euh, am na solo euh, den ñëw ci waxtaan ndax xam naa ni li des ci waxtaan yi xaw naa takku. Mm-hmm. waaye yaakaar naa soxna Awa du ñàkk dina am ay laaj ak publicité yu ñu war a dugal. Mm-hmm. mu daw su ko defee suñ bi dallu tuuti ñu naan ndox su ñëwee nag question yi nga xam ne soxna Awa yore na ko. Mm-hmm. wala soxna Awa ñu jox la kàddu gi laata ñuy dem pause su ko defee. nga jox ko ñaar ba ñett ci ay laaj euh, soo ko joxee ñaar ba ñett ci ay laaj ñu pause dem euh, kii suñ dikkaatee euh, nga mottaliwaat su fekkee des na yeneen ñu àndaat ak mbokk yi ndax te waxtaan dafa am solo. Mm-hmm. ndax waxtaan da nga ciy gis da nga gis sénégalais gi da nga gis Touba Touba Touba gi. Mm-hmm. doon bawal bawal gi yëpp day feeñ ci waxtaan wi ak itam bëgg <laughs> ak macha kon am na solo trop. Mm-hmm. ñu xam ni kon lépp mu ngi suñ loxo sëñ Touba liggéey nañu ko pare. mi suñ suñu loxo nag la des ngir ñu dem ci ñu la des kon soxna Awa su fekkee jekk nga. waaw su Moussa kon dañuy bu ko defee dañuy ñëw ci première question bi euh, ku ñuy wax sëñ Xaadim nee na danoo seetlu ni Rijal Holding ci secteur tertiaire la commencé investir est-ce que mën nañoo xaar investir ci yeneen secteurs yi comme agriculture walla leneen sunu deuxième question bi nii kii ni occidentaux yi ñoo téye financier yi te euh, ku jaarul seen yoon dañu lay yàqal. est-ce que yéen a ngi leen di bàyyi xel bu baax kii nii Touba daa nekk dëkk buy mag ci wàllu ci wàllu wépp est-ce que yéen a ngi bàyyi loolu xel bu baax balaa li sëriñ bi doon bañ di am maanaam occidentaux yi yi ñëw ci investir te ku la mën a sañal la sunu troisième question kii nii système euh, capitaliste bi ñoom ci profit la ñuy dox te jaral na leen lu nekk ay produits yu baaxul ci marché bi est-ce que Euh, Rijal Holding mën nañoo yaakaar si Rijal Holding ñoom duñu dox si loolu invité bi la euh, kii nii yan difficulté la Rijal Holding di si génne reconnaître kii nii danoo seetlu ni Touba la plus plupart jeunes yi euh, jànguñu est-ce que yéen a ngi xalaat si naka ngeen di leen mën a jàppale si emploi loolu moo doon question yi ñu fi jotoon na am. Mm-hmm. waaw daa mel ni yu bëri sax moom jot na cee jaar waaye gën koo leeral mm-hmm. ndax ñiy jóge ci bitim réew di eh, ñëw jot nga cee laal mm-hmm. eh, bi ñu la ko laajee waaye nag ëgg xóotal ndax nit ñi ci ginnaaw di déglu itam mm-hmm. soo laalee dara ñun ñi ne ci inspirato bi am na ñee ci ginnaaw ñoo xam ñooy déglu dañuy gën a xam bëgg nga xóotal ci bu baax a baax a baax ba mu gën a leer ndax bi ma la ko laajee nee nga ma eh, den den xool nit ki nii carte d'identité bi passeport kii waaye la la bëggoon laaj dëgg-dëgg nag mooy ñooñu nga xamee ne dana financé ci dëkk jóge fa ñëw pour yàqale li yàq dara ci dëkk bi mhm. ak yu mel noonu foofu la ñu jubloo jubloon laaj mhm. kon euh, ñu bàyyi ko kon mu tontu mhm. ñu soo a ñëw kon euh, dem ci publicité yi bisimilah waaw laaj bu njëkk bi mu ngi tëmoon ci wàllu euh, investissement secteur tertiaire agriculture lu tax duggagunu ci agriculture stratégiquement loolu moo li tax ñu dugg ci secteur distribution d'abord muy secteur tertiaire effectivement mooy jafe-jafe bi nga xamante ni boo càmbaree la sect euh, mbay mi mm-hmm. mooy ñi dañuy am jafe-jafe moyen pour bay mm-hmm. semence engrais ak lu ni mel mm-hmm. accès à l'eau ndox mooy benn jafe-jafe ñenn ñi bu ñu amee loolu ba noppi buñ bayee ñu am jafe-jafe rendement mooy foo xam ne tey jii da nga waroon génne 30 tonnes à l'hectare nga génne fa 10 tonnes à l'hectare ba doo ci génne. Mm-hmm. muy deuxième problème troisième problème mooy boo amee loolu am rendement boo bayee ba noppi da ngay am un problème d'écoulement. Mm-hmm. foo jaay produit. Mm-hmm. nga xam ni da ngay am ñaari option mooy soit nga brader ko tay la ko ci euh, baana baana yi nekk en bord de champ. baa mu nëb sa loxo. boo xoolee tey jii mango bi xool produit yu bari yoo xam ne dafay yàqu tomate bi dafay yàqu ci hmm. tool yi loolu moo ko indi ñu xam ni kon maîtriser les circuits de distribution balaa ngay investir ci agriculture lu war la sinon da ngay am même problème que tout le monde rek kon pour tontu ci laaj boobu loolu moo tax wàllu mbay dugguguñ ci hmm. parce que dañ jàpp ni jafe-jafe bi nga xamante ne moom la mbaykat yu bari di am c'est un problème d'écoulement de produit kon tey jii créer des cadre boo xam ne di leen mën a écouler produit bi moo gënoon yenu maanaa que di dem naan yaa ngi jël tool bay ci te puisque am na acteurs yu ci nekk ba noppi xam naa étape bi ci topp mooy xool nu ñu mën a renforcer la chaîne de valeur mooy au lieu que ñun ñuy bay mooy ñu xool ni tey jii ñun am nañ capacité pour mën a absorber lu toll ak cinquante tonnes oignon par semaine. Mhm. parce que réseau bi toll na ci dix sept boutiques. ñu xool ñu leen écoute cinquante tonnes yi dañ koy jënd en amont mooy masalan. tool bi 5 hectares bi 10 hectares bi 20 hectares total 5 hectares ñun mën nañ préfinancer 50 pour cent. oignon bi bu fekkante ne à 8000 francs le sac la ñun ñu fay 4000 loolu ñoom ñu mën a dawal ñu xam ne tool boobu ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. loolu moom mooy jur structuration de chaîne de valeur. ku ci nekk nga mën ko jàppale ci li nekk. ñun ñu mu wóor la ne on aura bi à la fin. ñoom woo leen bu ñu bàyyee ba noppi am na ku ñu ko jaay. foofu la war a jëm ñoom. Mm-hmm. waaye du caagi nii rek dañu ñëw rek dagg tool daf na ñëpp rek loolu daanaka jàpp nañu du xel. Mm-hmm. ndax ñu war a bay ñu ngi bay te bay du loo xam ne da ngay xëy rek daf ko c'est mm-hmm. ñu bari dañuy def erreur boobu euh, dañuy jàpp ni am nañ tool am nañ suuf am nañ ndox am nañ tuuti wecc rek dañuy bay may fàttali saa su ne li benn sam benn xarit doon wax naan euh, dafa moom baykat la ingénieur la. dafa toogoon ak euh, xaritu médecin am xaritu médecin bi naan ko incha bu retraité dafay dem bay mm-hmm. moom ak ingénieur agronome la ni ko man tam ba ma retraité damay dem ubbi cabinet médecine. <laughs> ku kuy def erreur boobu rek ñaas mbay moom du lu ñu fooye mm-hmm. xam-xam la du loo xam ne dangay ngay toog dafoo dara nga dugg ci te li mën a yàq ci xaalis dafa gaaw. Mm-hmm. kon loolu defe naa ne ci laaj bu njëkk la. te mbay moomu. mooy li nga xamante ne moo jiitu balaa ñuy mën a am industrialisation. Mhm. ndax nit ñi dañuy wax industrie Touba industrie Touba mais industrie mënoo ko am te maîtriser woo li naan la chaîne en amont la chaîne en aval en amont mooy lu génne ci industrie bi foo koy jaayee. en amont mooy matière première bi nga soxla. Mhm. naka nga ko mën a sécuriser ba téye mhm. jàngat bi ci gën a simple mooy tey ji wàllum gerte gi ak huilier yi. nga xool Sonacos ak ni muy toll bu la waxee ni gisul grain grain bu mu génnee huile nga xam ne kon tey jii ñooñu. bu dawalee tuuti seen société seen industrie daanu ñi fi nekk fii tamit boo déggoo huiliers yi nekk Touba dañuy xam ne ñoom gisuñu sax doom ndax ñi yor doom yi te ji gis nañ ñeneen ñu ngi ko jaay ci njëg goo xam ne moom moo ëpp kon bu ñu bëggee industrie bu taxaw faaw ñu góorgóorlu ba lijjanti wàllu secteur primaire boo xam ne c'est un secteur primaire intensif c'est un secteur primaire bu ñu maîtriser et c'est un secteur primaire boo xam ne c'est dédié à l'industrie locale mm-hmm. loo xam ne dañ koy brader muy dem à l'export mm-hmm. tant que réglé woon problème boobu industrie bu ñu fi teg du dem te faaw ñu daf ci xam-xam boole ko muy approche intégrée boo xam ne faaw ñu mën avancé mm-hmm. loolu ci wàllu question bu njëkk bi ci loolu laa bëggoon ñëw. deuxième question bi même ci wàllu secteur bancaire bi ak étranger mm-hmm. effectivement dañu am secteur bancaire boo xam ne moom moo mos a nekk euh, yaafoosu économie bi. si loolu la ñu njëkk note sunu not ci monnaie la ak ci secteur bancaire. Mm-hmm. monnaie da ngeen ko tudd. ko tudd nag. <laughs> <laughs> dina ko tudd ndax eh, nit ki nag doonu li naan doonu dóor ba pare doo wax dunu wax yan bu mu dóor du toll <laughs> loolu mënta ne danañ ko tudd doon te xëy ni amagoon saafara ji tey waaye dinañ ko tudd monnaie gi si la ñu ak ci wàllu secteur bancaire ndax secteur bancaire da doon loo xam ne bu ñu xoolee nasaraan na ñoo contrôler banque yi ci ëpp ci Sénégal français bi nu si téye monnaie bi dañ téye le système bancaire bu njëkk ba crédit bi la woon BICIS BNP Pari BICIS BNP ba Société Générale Crédit Agricole. Hmm. ñoom ñoo fi woon téye ko. te la tax ñu téye ko mooy daf leen permettre ñu mën a financer de façon directe les entreprises françaises ñi nga xamante ne ñoo fi yëngu. Hmm. et de protéger les intérêts. Hmm. ba tey jii boo amee entreprise française boo xam ne dafay yëngatu ci secteur bi yow. Euh, Mokhtar wala Massamba nga bëgg investir ci ce secteur boobu demande fa crédit du la ko en toute latitude ndax li ñu wax naan BCEAO dafa crit dafa définir des critères de de de de prudentiel des normes prudentielles waaye ba pare bàyyi banque bu nee la latitude commerciale. Mm-hmm. mooy banque bu ne sañuy refuser un crédit euh, selon sa politique de risque sans pour autant définir que ni ah boo amee 100 il faut que 70 wala 75 yi dellu ci entreprise yoo xam ne c'est des entreprises nationales dans le sens souverain du terme. Mm-hmm. xëy sax day ubbaat beneen problème mooy la mooy entreprise nationale dans le sens souverain ndax loolu sunu nguur gi ñemeewu ko ñemeegu ko mooy entreprise nationale jàpp na ni mooy ko amee CCM rek. Mm-hmm. da nga gis entreprise boo xam ni tubaab ko moom bu Bonjour à 100 pour cent. Mm-hmm. ñu ne la entreprise nationale la ndax RCCM la yor. Mm-hmm. dans le sens juridique jooju. kon secteur bancaire bi noonu la yàggee note. ba bi ñu sax bi bi marocain gisee ni bunt bi fii la ñoom tam ñu dugg ci. ndax tey li li mat a bàyyi xel mooy c'est un secteur boo xam ne fortement dominé par les Marocains. Mm. ñoo jënd CBAO. Mm. jënd Crédit du Sénégal marocain yi la. BOA c'est le groupe BMCE ah euh, Banque Atlantique moo nekk léegi groupe euh, Banque Populaire bu bu Maroc. Mm. nga xamante ni banques yëpp c'est des banques marocaines et qui sont là pour appuyer l'investissement des sociétés marocaines dans dans dans le Sénégal. kon loolu ñu ngi ci note ba léegi. waaye ñun yàlla def ñu dimbali ba suñu leverage c'est un leverage boo xam ne pour le moment purement capital lu ñuy investir lu ñu dajale ci murid yi leen investir mm-hmm. toll na foo xam ni dañuy wax système bancaire bi jox na te tamit bu ci tolloo tamit on a un système bancaire boo xam ne jot na fi développer des acteurs bancaires yoo xam ni xëy na mën na rafet ndort si ñoom parce que ay sénégalais ñoo nekk ci gannaaw mu mel ne la banque BNDE mm-hmm. muy mel ne banque ay outarde wala banque yoo xam mm-hmm. mën na rafet njort si ñoom loolu moo tax Rijal dugal ci stratégie ni à terme il faut que ñu mën a am un financier boo xam ne murid yi dañ koy contrôler mhm. loolu dañ ciy dox ci kàttan yàlla suñu borom. Mhm. Euh, euh, ci poñ boobu dafa am lu am solo loo xamante ni euh, dama doon gëstu ci côté système bancaire bi. ma gisoon ni nit ki am na xaalis fu mel ni Amérique ci benn banque ñu ni ko mënu ko envoyé direct Sénégal. il faut danga ko jaaree benn banque France joxaay bi day xaw a takku ñu soo koo kii soog koo mën a jël indiwaat Sénégal loolu euh, ndax ba léegi ñu ngi ci système boobu wala génn na génn nañ ci wala. non de correspondant bancaire. Hmm. ndax te jii ñun bu ñu bëggee yónnee xaalis faaw te ji banque yi jaar seen banque correspondante. Hmm. nga xamante ni xëy na banque yi amuñu jëflante directement faaw ñu jaar tey jii boo melee ne tey jii jël CFA war ko yónni en en New York xëy na bu dee dafay jaar bi BICIS da koy jaarale banque correspondance muy BNP Paribas France. Mhm. bu jógee BNP Paribas France doo ko dem xëy na BNP Paribas New York BNP Paribas New York doo ko yóbbu Chartered Bank wala doo ko yóbbu une autre banque américaine. Mhm. noonu lay doxalee. donc cette notion de banque correspondante moom dafay yàgg dox te ku ci nekk dalay mën a permettre nga mën a optimiser tes ndax xëy na du xaalis bi ngay jógee fii Sénégal moom mooy dem ba ba États-Unis déedéet. Mhm. xaalis boobu xëy na fii lay yem ñu ni débité fële. Mm. compte yooyu tamit ñu débité waat yeneen compte fële mm. compte yooyu ñu crédit débité mm. kooku xam ne moo nekk ci bopp ko ñu débité crédit compte bële. ñoom signal fii bindal fële signal fële bindal fële rek. kon loolu defe naa ne du du du lu exceptionnel ci yoonu banque euh, dafa nekk loo xam ne dafay dox normalement dans le fonctionnement des banques qui leur permettent. ñu mën a appuyer wu sur des banques correspondantes pour def ay opération au niveau international. Mm-hmm. pour optimiser seen réserve de change pour optimiser seen ay de change ak mm-hmm. Mm-hmm. kon dañuy jox soxna Amady laata ñëw ci yeneen euh, euh, euh, question yi nga xam ni soxna indi na ko moom itam mu jàngat mu déggee waxtaan wi su ko defee nag ñu soog a ñëw nag dem ci publicité yi. naan ndox nga soog a ñëwaat nag ci yeneen laaj yi nga xamante ni. jot naa rotaat ndax xam naa sax mën naa am balaa boobaa dina am yeneen yoo xamante ne ci dooleeku. Euh, ci su boobaa nga mën ko euh, tontondoo yëpp benn yoon ndax euh, wax dëgg yàlla moom am na solo soxna Aminta daal. am na solo macha allah ci li wax nii mbooloo lañ moo xamante si ne dañoo jóg ngir suqali Sénégal. Mm-hmm. ndax buñ ne Touba kese mën nañ ko am fuñ ko teg am fuñ ko téye daal waaye bu ne bu fekkee li yi nga xam ne moom lañu naan bu tasaaroo rek Sénégal yëpp nañ ci seen bopp te dañoo yàgg te ñu ko waxee di investir buñ investir dale mu dem luwaat ci génnaat Sénégal. te li ñu wax ni seen bëgg-bëgg su tasaaroo rek lépp day ñëwaat ci biir réew mi gën a suqali réew mi am na solo ci li mu wax beneen jàngat mi def tamit mooy li mu wax ni comme boo doo tëb rek dal ci mbay hmm. ndaxte ñu bëree bëri loolu dañuy am solo ndax nit ki bala ngay dugg ci dara il faut nga am ca xam-xam hmm. boobu nag ñu bëree bëri dañ koy dañ koy ñàkk ci wàllu mbay hmm. moo tax suñ ci duggee rek il faut affaire mu ñu suuxee ndax man gis naa ñoo xam ne bi ñu tëbee dem ci mbay fi ne nii ñu ngi toogaat ndax tool ba ñu defoon xamuñu amuñ ca xam-xam amuñ ci ku leen jàppale ñu def ci seen xaalis dañoo mujj perte ko li mu wax tamit am na solo ci wàllu boo ñëwee da ngay xool système boo xam ne ci ngay jaale nit ñi ba yëf yi gën a di jëm kanam saa su nekk te doo ci am benn jafe-jafe mm-hmm. li mu fi leer tey moom macha allah ni xam naa ni téléspectateur bi ñu ngi kontaan lool ci mm-hmm. émission xam nga fexe comme ni mu ko waxee fexe ba ka bay puutu su paree ca lam bay indi la ko ñu mën ko indi indi ñoom ñu mën koo jaay ka nekk jogoog mbooro noonu ka nekk waalo itam noonu. kon kon mbay mi am na bi tamit noonu. ñëpp noonu production bi moom kon am na. Mhm. léegi li lan moo des fu ñu ko mën a jaayee. waaye lépp day yàquwaat ci àll bi. Mhm. kon xëy na kon moom moom. bu ñu ko jaayee pare téye suñu xaalis mën ko dugalaat ci yëpp laat ci biir. mu yemaat ci dëkk bi macha allah ci réew mi tubaarkaala loolu am na solo. <laughs> Euh, kon euh, kon Xaadim. Mhm. Euh, su ko defee ñu dem dem publicité ñëwaat. ci jotaay bi incha allahu rabbi. àndante kook jëwriñ ji su ko defee ñu daal di a dem ñëwaat ci kàttanu yàlla. ah waaw kon baax na kon euh, dañu wax kon ni ñu nga tontu question yi fi nekk ba pare. Mhm. ñu soog a def pause kon incha mhm. naa ni euh, ñetteelu question bi muy wàllu investisseur étranger à Touba. Mhm. loolu moom euh, li li ñu ci wax moom xëy na lu gàtt lay doon. xëy na mooy li ñu doon wax rek naan sénégalais dafa am complexe sama investisseurs yi. sama partenaire Euh, jàpp na ni pour que ministre bi mën a recevoir wala kilifa mën a recevoir faaw nga indi partenaires yoo xam ni euh, Turquie lañ jógee France lañu jóge Chine lañ jógee wala leneen lañ jógee loolu moo lay jox crédit. Mm-hmm. ñuy wax ak ni Touba gi tamit investisseur bu fi ñëw xëy na am na ñu leen fi indi. Mm-hmm. foofu nag laay yàpp ni euh, xëy na définir un schéma institutionnel boo xam ni bu dee am na ay opportunité de projet wala d' investissement. Mm-hmm. ñu mën a xool naka ces projets naka la leen mën a porter auprès de la communauté ban xam ni kenn mënu ko ci. ndax yàlla def na ni euh, jalub sëñ Muntaxa Gaye doon jalub xam-xam. waaye mu doon jalub nosu. ndax lu bari di ci juddu. Euh, rijaal la ñuy wax euh, fan yi ci gannaaw lu ñuy wax murid professionnel juddu na ci tamit mooy plateforme boo xam ne dafay dajale professionnel murid yi ci monde bi yëpp. Mm-hmm. Euh, raw du rayin ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngànk liggéey bi am mhm. ay cadre de réflexion mhm. kon loolu yëpp buñ ko fédéré rek yaakaar naa ni bu nu amee ay opportunité d' investissement wala des opportunités de projet war na ko mën a porté si instance yooyu mhm. ba ñi ci am xam-xam technique mën wax ni techniquement lii baax na wala lii baaxul ñi ci am xam-xam ci wàllu environnement xam ni lii mën na gàllankoor environnement Touba wala mënu ko ñi ci am xam-xam ci wàllu financier xam ni financement bi warta mën a jafe-jafe indi ndax na mu toll bariwul te li mu jur bari na. Mhm. ba buñ ci noppee ñu mën a xamal ni ah lii de yaakaar naa ni yoon bi mën na ko def. Mhm. kon évolution institutionnelle boobu faaw ñu mën ci jàll bu ñu ko deful rek eh, ku ci nekk dangay ngay wax rek jël sa partenaire indi. Mhm. ñëw toog nos nos nos jóg eh, ñu jox la ab pàcc nga doon def. boobaa yow am nga say partenaire waaye yaa ngi ubbi ab eh, buntu boo xam ni xëy na ba ñu ci tolloo. yaa ngi jox nit ñi pouvoir bu rëy ci dëkk boo xam ne dëkkub euh, autonomie la dëkkub gëm sa bopp la dëkkub moom sa bopp la. Mm-hmm. kon defe naa ni euh, xëy na ñun loolu lañ ci am comme contribution après li ci des nag moom defe naa ni il faut que ñu mën a évoluer. que les schémas institutionnels mën a évoluer pour que ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor dëkk bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor réflexion yi muy yaa mairie yi muy yenn porteur de projet yi mën a xam ni muri yi ñu ngi fi. yàlla dimbale na leen ci xam-xam ak ci jeexantal ci sëñ bi ñu mën saafonteeg ñoom balaa euh, ñu mën a song yenn projet wala yenn investisseur ñëw ci ndax lu murid mën a def defe naa ne daf kook ñoom a a bi ndax moom bi ñu demee bay euh, euh, def université bi. Mm-hmm. sëñ Mountakha dañu moom doomi dëkk bi lay tànn. ab ku jóge ci daara ji lay tànn. Mm-hmm. koo xam ne yëg ci Sëñ Tuubaa lay tànn kon moom en tant moom itam war naa delloowaat xelam. ci li sëñ bi tànnee moom itam mu jàpp ci lii ci ak anam yëpp mu ci war a mën a jàppee mu taxaw ci kéem tolluwaay kàttanam. mooy lu wér enquête mooy lu wér. Mhm. produits étrangers yi ak les produits conformes loolu defe naa ne sunu sunu politique la bokk ci wàllu réseau Syngenta bi. Mhm. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, muy ci qualité muy ci conformité euh, muy aussi ci wàllu protection tissu industriel. ndax dem nañ ci sax ba yenn produit yi nga xamante ni lu mel ne tey ji ndox. Euh, doo leen fekk ndox bu ñu importé sunu sunu réseau. ak ndax jàpp nañ ni li fi nekk ci ci ci société yuy defar ndox bari nañ bari goo xam ni yanuwul maanaa ngay naan yaa ngi uti euh, Perrier wala yaa ngi uti leneen xanaa mu doon de l'eau boo xam ne dem nañ ba kireen gazeuse amu ko ñu war a proposer yenn substitut mais ndox normal de l'eau plate te ji loolu ñu jàpp nañ ni importé ko di ko jaay suñu raison dafay mel ne dañuy combattre industrie yi nga xamante ne ñooy dox ci dëkk rawatina suñu industrie boo xam ni suñu sang ak dëkk moom mu lu mel ne ay nu hmm. te war nañ dem tey ji ba seen capacité war nañ bu ñu ko tolloo ay noonu dana occuper benn rayon bu am solo ci ñi nga xamante ni ñoom ci la ñuy jaay donc ci wàllu produit moom dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Euh, difficulté Rijal Holding. ah dafa naa ne Rijal Holding moom comme toute une entreprise donc euh, dañuy am sunuy euh, li naan point plus point moins. Mm-hmm. waaye buñ ko dajalee sant bu wér képp ci am. sant bu wér ndax jàpp naa ni tawféexu sëñ bi la duñ ci dara. ya sëñ benn yabal képp ci li ñuy def mhm. mu am àpp boo xam ne dañ ko ci def mhm. bu àpp bu jotee ñu ne ñëw yeggale ko ba moo tax saytu gi ñu ciy saytu saytu boobu moom daanaka suñ bakkan lañ ci teg mhm. te ku ci nekk xam nga si sa cër muy mën mii nga xamante ne maay président waaye euh, conseil d' administration féete ma kaw conseil d' administration tamit investisseurs yi féete leen kaw investisseurs yi ak ñu ñëpp nag sëñ bi féete nu kaw kon loolu mooy li nga xamante ni euh, ci la ñuy doxee ñu gëm ko Euh, li ci des yëpp defe naa ni ci jaar-jaaru société lay nekk ñu ci góorgóorlu et puis toujours di góorgóorlu ba am expertise en interne boo xam ni muy problème bu mënti am. Mhm. dinañ ko mën a régler ndax lépp ci xam-xam la war a tegu. Mhm. est-ce que yéen a ngi euh, jëflante comme règlement yi nekk ci biir dëkk comme soxna yi nga xam ne ñu ngi defar ay wàllum cere ak wàllu xeet yooyu ndax bu ñu ñëwee euh, proposé ni ko di ngeen ko mën di ngeen ko jënd. waaw décembre rek boo jëlee euh, GIE euh, Lamp Fall bu Paleen. Mhm. daanaka ñoom lañ si signer convention dafa leen financement un million cinq cent. Mhm. ba pare ñoom seen production nu mu mënti toll dañ koy jënd. Mhm. yamuñu ci sax euh, kër yu bari ci ndëkk bi bu ñu defaree cere bu ñu defaree sànqal bu ñu génnee daanaka dañuy oo ñu ñëw jël si ko. te da suñuy kër sang te wax dëgg fa yàlla qualité ba ñuy am foofu mhm. foofu rek la am mhm. amul feneen mhm. amul feneen kon loolu jëflante goo xam ne la dañ koy rafetlu lool ñu ci gën a góorgóorlu ñun tamit moom laay wax sama équipe yi naan leen li ñuy seq ak ñoom da doon loo xam ne lu ñu war a sàmm la ndax euh, ñoom ñu ngi góorgóorlu ci lii ñun dañu soxla ñoom li ñuy def te ñun dañ leen soxla te ñun tam ñu soxlawaat leen mm-hmm. kon la relation client fournisseur nekkul réellement relation client fournisseur mm-hmm. dafa nekk loo xam ne du ko féete kaw mm-hmm. donc ñu ngi si góorgóorlu suñu kéemtulaay kàttan te wax dëgg fa yàlla ba fi ñuy waxee ñu ne ñu ngi jëflanteeg ñu bari ñoo xam ne ñu ngi wàllu ci transformation ak i soxna te dañ ko gën a soxla tey jii boo xuusee tuuti rek ba xam mhm. économie Touba mhm. da nga xam ne GIE yi ñu soxla taxawu la mhm. ñu soxla taxawu la ñu luñ ci def rek xeeb nañ ko xeeb goo xam ni xam naa ne du ñàkk dinañ gën a dolliwaat suñu participation gën a ànd ak ñoom ci loo xam ni dina yokk seen ay capacité de production dina leen mën a permettre ñu améliorer seen ay process ba clients yi nga xamante ni ñoo ko jënd tamit ñu mën ko am si njëg bu jàppandi euh, ku ci nekk mën si gis sa bopp sant bu baax di la gërëm. Euh, ci laaj yi ak tontu yi itam macha allah lépp leer na waaye nag dinañ ñëw kon ci boutique yi lan ngeen fay jaay ak yaakaar naa jotoon nga na ci lu ngeen dul jaay am lu ngeen dul jaay yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat ci kanam incha allah ak yeneen laaj yi nga xamante ñoo topp ci ginnaaw euh, kon su ko defee dañuy dem euh, soxna Aminta publicité. suñ ko de suñ ñëwaatee nag soo continuer jotaay bi wéyal ko ndax am na solo jamono ji sëñ Xaadim ñu dem publicité ñëwaat. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi li ngeen doon xaar agsi na yónnee ngir mën a bokk ci liggéeyu jumaay Touba te Serigne Fallilou Mbacke waxoon ne képp ku ci farlu say mbir dina feeñ ba faaw ku ci gën a jëf gën a jëm kanam gën a ëpp daraja waaye ku ci gën a des ginnaaw ginnaaw lay des rek ba faaw fondation Muxaddamatul Xidma taxaw na nekk fii ci Amérique ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ca Touba ngir yombal leen ci ni ngeen gën a jàppandale seen participation maanaam seen barkeelu ci liggéey yi ci jumaa ji muy lu jëm ci wàllu maintenance waajtaayu màggal gi dundal weeru koor dundal guddi gàmmo saytu almeeru bàqiya yi si taxawu personnel bi ak yeneen ngir tàmbalee si weeru safar gi jàpp ci waajtaayu màggal Touba mën ngeen a yónnee seen addiya ci site internet bi mën ngeen ci jëfandikoo seen crédit card paypal wala seen checking account lépp ngir mu jàppandi si yéen ndax du lenn kenn lépp ñépp la te képp ku ci feeñ dootoo nëbbu ba faw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

الباقي من الأمراض asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayutu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ñi ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees bu leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ñu nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen waxtu yi ngeen xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàllu woowu indi leen ci nag ay borom xam-xam yu ñu ràññee ko ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ko ci yoonu murit kuréel yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba kër ngeen mën a ubbi téerab alquran ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag la ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www.alminan.com alminan.com nag da ngay def A L M I n a n e point ngeen ci inscrit ak seen crédit card wala mën ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bi 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bi à partir des États-Unis 1 877 218 9413 mën ngeen cee woote ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf ngir taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram ci anam yu mucc ayib ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaw loolu dong mooy bëgg-bëggu clinique mix Cheikh Abdoulaye Mbacke ñi ngi nekk fii ci Touba 28 waaye lépp lu ngeen di soxla ci barabu fajukaay am na fii dale ko ci service ophtalmologie di traité cataracte wala bépp lu leen bu ngeen yittewoo te mu méngoo ak seen i bët. consultation waaw bu dee suñu service médecine général nag lépp lu ngeen soxla am na fi consultation hospitalisation ba ci suñu service de maternité am na CPN accouchement échographie waaw ba ci service d'hémodialyse fii ngeen koy fekk ci clinique Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy barab bu dal xel gannaaw seen jëflante kilifa dina yu tàkku ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou waaye kilifa yi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci biir réewum Sénégal dëggal nañ lu li mel 24 heures fi fekk suñuy service de garde ngeen mën a woote ci numéro yi 33 978 61 05 wala 76 638 38 wala 76 638 38 22 wala 76 638 38 24. ak clinique mix Cheikh ab la Mbacké nekk fii ci Touba 28 seen jafe-jafe jeex na ci wàllu wér-gi-yaram. ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg bu mag boo xam ne ab centre culturel islamique la boo xam ne day ànd ak barabu jàngookaay ngir xale yi nga xam ne ñoo juddee ci moomile réew mën di fa jàngee ñu leen fay tarbiya ak salle polyvalente boo xam ne danañ fa amal mbooleem activité culturelle yi dana am ba léegi complexe sportif ak ay dalluwaay ngir kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fay ñëw ñu toll ci door liggéey bi daayira xidmatul xadim bu rale Caroline du Nord ci Amérique di ci woo mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey bi la. liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati loolu lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaaw kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi. liggéey bi nag dañ ko fas yéene yaatal di sàkku ku ne tàbbal ci saw ñaq ku ci bëgg a barkeelu mën nga jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone yi wala nga def ko ci numéro compte yi affiché. waa daayira xidmatul xadim rale Caroline du Nord ci Amérique ñooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér. BDS création ci cuuraay BDS création ci parfum de chambre BDS création ci xet gu neex bu lay gunge ak foo mënti tollu BDS création miroir de cuuraay et parfum original nekk ca marché Thiaroye ñoo leen di souhaité رمضان أقبل بعد طول غياب ففرحت فيه مهنئا أحبابي على المنتقى خير البرايا محمدي سلاميك خلد يا إلهي بهمدي liggéey bi sëñ Tuubaa bii liggéey bi bii ñu tàmbali da cee bokk waaye liggéey bi réy na yaatu na te il faut que mu yóbbu ko fa mu ko jëmee waaye nag du tee ñaan nanu ñaan liggéey sëñ bi bii yàlla kattanal nu nun ñii fi teew nii kattan nañu ak ñeneen ña ñuy wuutu ëllëg suñu borom kattan na leen ba ba ba bis ba sëñ bi soxlaa jataay bii muy bis bu bis bis bis bisu daje ba rek kon ci barkeb sëñ bi ñi yor liggéey bii ñu nekk ñi fi teewe ñi fa teewe nii ak ñay ñëw ëllëg ñay ñëw ëllëg muy wéy liggéey bu mu laal suuf mukk nañ leen bu mu laal mukk lenn dong dong dong moo war a liggéey bi mooy yëkkati baatu sunu borom sëriñ bi ñëw leen yëmbutam bépp léppam jàddul lépp ñu ko def ci yëkkati baatu sunu borom ilaahu kalimatillahi al-ulya ba loolu dong moo moo moo moo ko fi indi loolu it lañu fi bàyyil mooy sunu ndono sunu rek lañ war a nekk sunu lépp ci loolu lañ ko war a def di ñaan nag ñun ñii fi teew bu ko dolli nu kàttan ban mën ko taawu liggéeyam bii bu yàlla bu nu yàlla wooyee ña ña yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy moom laal suuf ilaamu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi سادات الأموات تبكي الأراد إمكا سماوات kon nag bis bi ci mën a jëm jëmul fenn bis bi ci mën a jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog liggéey baa boobu ñaan dong mu leen ciy dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te na daaw ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa sëñ Tuubaa dina moom ba bis bi ñu sa fa sëñ Tuubaa demoo yàlla alhamdulilah yàlla yàlla boole ca noonee foofee mu demoo yàlla na si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ Tuubaa xool xolam sëñ Tuubaa ga ca biir ñu yaa ngi bokk nga ci ñaan bi waaw ndam ndamam ndamam ndamam ëllëgam loolee yàlla nañ ci bokk waaye yàlla na lu a dimbali itam ba liggéey bi liggéey bi ñu taawul ko kooku ba bis biñ ci ba loolu rek la ñaan ci barke ci barkeem ci baaxam te fàggu jëfam nag ndax lépp fàggu na jërë ngeen jëf kanu yow doonatal kal wérdi ma si barin min la liminas babil musibati kanu isa laylu ar hasit rasa alakin qamu siraan li يائد جنات بافدال بذكر الله خالقهم فنما في ليل با بالمناجات تجفل مداجي في ليل جنوبهم ناسي نسر Touba ci kanam. ku ko ci xam. lu ngeen lu message rek naa ko sasoo. waaw kii dugal naa ci téeméeri junni. wajalilaayi maskani Touba baat mislas mi abijaayi xayri man abaat. Touba ci kanam moom ku ci bokkut xaw man looy bokk. ñi nga dégg naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amul Touba ca kanam am ah ñoo ko sikar di ko wax bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Touba ca kanam ay xeej ak i ñaw koy géesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam moo bëgg a def loolu ab laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi te wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex a jëm ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy jeex Tuubaa boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seen i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeel wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul ngi seetaan seen télévision kon nag abonné leen te jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de ñoo ngi koy ndokkeel baax moom tamit di ko ziar kon mbokki ginnaaw bi ñu demee nag euh, pause publicité ñëwaat Euh, ñu sant baax a baax mboolem suñu sponsor yi nga xam ni ñooy jàpp ci liggéey bi kenn ku ci nekk ci ñoom rek ñu ngi lay euh, sant di la ziar baax a baax di ñaan yàlla itam euh, muy ñi nga xamante dañoo yor njaay mu ñuy jaay wala ñi nga xamante ni bii ay bërëbu fajukaay lañ wala ñi nga xamante ni itam ay kuréel lañ ci yëngu ci wàll luy jëmale Porokhane kanam wala ñi nga xam ne dañuy taxaw ci xidma ak ci jàng bi muy alphabétisation beeg ñoom ñëpp nit ñi nañ ci def yitte. Euh, fekk si leen ca woote boobu ñuy woo nit ñi yëpp du seen njariñ njariñu nit ñi lañu kon ñu ngi leen di ndokkeel baax a baax ñoom ñëpp di ñaan yàlla yàlla lañ ciy séentu ba euh, taamu télévision bi di Touba Vision yàlla def euh, ñu def gis lu kawe seen jort ci barke Cheikhul Khadim kon soxna Aminta ginnaaw bu ñu demee ñëwaat na kon ñu jox la kàddu gi rek ci suñu sponsor yi nga xam ñoom lañu àndal soxna Awa yaakaar naa ni moom itam am na laaj yu mu am fee moom la ñuy tàmbalee su paree. ak laaj bi desoon fii ci côté emploi yaakaar naa di lu am solo loo xamante ni euh, dëkk bi dawalkati sareet yi bari nañu euh, ñi nga xamante ni amuñu fu ñu xëy bari nañu euh, bu ñu demee ba mag doon mag nag ay baay peel bari fii ci loolu lépp nag métier la naam waaye nag am na loo xam ne suñu leen teeloon a gàttandu ci wàllu formation ci wàllu nangam leneen ak leneen yaakaar naa mën naa am lu bëri tey dana wàññeeku ko soo xool itam agression bu bari na jamono jii ba police sax ñi ngi wax fan di génne communiqué boo xamante ni neen ndaw ñi gis nañu bëri ñi ngi doxantoo ay paaka ñi ngi doxantoo leen ak leneen loolu lan moo ko waral kon yaakaar naa suñu leen euh, wutalee fu ñu jàpp rek dana am solo trop ci euh, askan wi rawatina dëkk bu sell bi di Touba Soxna Aminta saa xanaa di jaajëfalaat bu baax a baax ñu mbokki sponsor yi nga xam ne saa su ne ñoo ñuy gunge ci jotaay bi di comme ni nga ko waxee rek euh, clinique gu Sëñ Abdou Lahad ak lu ci mel ne BDS euh, ci cuuraay ak ñi nga xamante si ni fasantikoo yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi jàpp saa su nekk rek ci jotaay bi di ko àndeek ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci taxaw gi ñuy taxaw saa su nekk rek de comme ni nga ko wax tamit bu ñëwee ci wàllu économie bi am na solo lool ci wàllu économie ñu ñëw ci am na solo ndaxte li nga wax dëgg la nit ñi ndaw ñi ñu ngi ci dëkk bi waaye xam naa bëgg nañoo liggéey mais fu ñu jaar ba liggéey ndax benn méthode rek lañ fi gis ci xale yi ñuy toujours ñu ne mooy wàllum dawal sareet te xam nga ne ndaw lu tuuti amaana sax bu fekkoon nii am na yaakaar du bëri ci liggéey ci ci avenir ëllëgam dana jéem a tax dana teel mu dana tax mu teel a jéem a fàggul boppam du du am si six ans rek daal ni ay ci maa ci yoonu ci yoonu sareet yi li nga am na solo ba kon ñu di ko sëñ Maxtaar rek di ko jaajëfalaat bu baax a baax ci ànd bi ñu ànd ak moom ci jotaay bi ñu ngi ñëw ñun ci wàllu économie bi rek incha allah wala daf na de. Mhm. Euh, mhm. ñàkk ci ay ndaw dafa bari mhm. ca ñàkk fu ñu ñàkk yaakaar mel na ni moo tax état bu ñëw lam leen di dig su nee ci biir duñ ko gis kon yaakaar naa loolu euh, su ay nit ñëwee taxaw ni dañu fas yéene créer emploi yaakaar naa loolu tam war nañ leen a yaatal waaye itam euh, tatagal leen su fekkee lu ñuy de ubbi seen boutique la ñu dem ci di ci jëndi loolu surtout maa loolu mooy tax ñu mën a gën a am euh, capital ba mën a euh, créer emploi kon soxna Awa mhm. ñu bàyyi la ak kàddu gi ginnaaw bu ñu demee ci publicité yi ñëwaat mhm. ñu nga ñëw ci laaj yi nga xam jot naa tàbbeegul mhm. waaw suñ Moussa bu ko defee dañuy ñëw ci suñu huitième question Euh, ki ne na sénégalais yi nekk ci diaspora bi dañuy sonn lool te duñu xam fu ñuy jaar pour investir. Mhm. est-ce que ñoom pare nañ pour jàppale leen ci seen expérience. Mhm. Euh, kii nii est-ce que Rijal Holding ñoom xalaat nañ yaatal liggéey bi yenn action yu jóge ci xilaafa gi. Mhm. pour am bénéficier dugaat ci dëkk bi. kon suñ Moussa bu ko defee dañuy euh, duggaat YouTube xool ñi nga xamante ne ci ñoo fay sant ak gërëm. émission bi di 28 Mbeustune encore. itam ay questions yu am solo. Mhm. ay laaj yu am solo vraiment. Euh, yoo xam ne suñ ci tontu rek surtout waa diaspora bi. Mhm. Euh, dana gën a amal dana gën a mën a am solo ci ñoom. Mhm. ñi ca ñuy jàkkaarloo ñu ni seetaan soxna wa jeex nga ciitib bi wala. waaw maa ngi ciitib ayca ay coo nañ la bàyyi nga ransalé saa yu jekkee rek nga ñu jekk nañ mhm. waaw ay ko kon bisimilah mhm. mhm. non non xaaral tuuti ñu su ko defee nga ñëwaat dana am solo euh, ci euh, taxawaay bi nga xamante ni am na ko waaw ku ñuy wax Serigne Balla Lo nee na bëgg naa leen di ànd ak yéen fii ci Suède. Mhm. di jaar Serigne Mokhtar Sarr suñu jëwriñ. Mhm. Euh, Mamadou Fall nee na salaam vraiment émission yi am na solo lool yal na yàlla yokk leen. Mhm. Euh, ku ñuy wax euh, moom nee na ànd développé suñu quartier moo ñu ñor macha allah ku baax te bëgg lu baax. te bëgg ñu gën a baax moo ngi noonu. je suis son mm-hmm. euh, ne kii nii ka defal suñu quartier rek moo ñu ñor macha allah. Mm-hmm. ku ñu wax Abdou Lahad Lo nee na macha allah Serigne Mokhtar tawféex rek. Mm-hmm. ak euh, Bamba Touba Diaw moom tamit nee na moo ngi rafet lu émission bu baax. Euh, ku ñuy wax Fallou Thiam tamit moo ngi koy rafetlu émission bu baax a baax. macha allah. <laughs> ok jërëjëf soxna si. ñu ngi amaan ci liñ leen di encore. rawatina tey nag ci wàllu xam nga nit ñi nag dañoo soxla ci wàllu eh, développement mm-hmm. <laughs> dañ ko soxla lool nag ci économie investir lépp dañ koo soxla nag bu ñu amee jataay bu mel nii dañ ciy bëgg lool di ci ànd ak ñun saa su nekk xam suñu soxna yi euh, muy suñu yaay yeeg suñu bàjjen yeeg suñu rakk yeeg suñu maam yi mm-hmm. dañoo sonn mm-hmm. banque yi li leen naxa naxa naxa nax ba nu sonn ca euh, ndeysaan euh, fu ñu wootee banque rek lebak yooyu ñoo koy jiitu suñ demee itam dinañ góorgóorlu jii ma joxe jii ma def nangam soo demee police ak gendarmerie seen dossier fa fees dell del del del ca ñàkk xam fu ñu teg seen tànk rek mhm. moo waral yooyu mhm. di lu daw yaram loo xam ne mhm. ñu mel ni nag ñoo ñëw pour solutionner loolu ak itam euh, crise économique bi nekk ci réew mi ak financière rek lépp ñoom nan lañ ko war a solutionner lan yaakaar suñ fa jaaree dana dana solution dana dana dana ko trouver kon yaakaar naa danañ ci ñëw ci kanam moom la ñuy euh, jotaay bi kon ñëw ci euh, laaj yi nga xamante ni moo fi jot a rot sëñ Maxtaar jërëjëf euh, Cheikh bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax. Euh, defe naa laaj bi fi jotoon wadd mi ngi demoon ci wàllu emploi jeunes yi. da doon euh, point boo xam ni damay faral di wax di fàttali naan ni ndox mu neex nekkee jafe-jafe ci dëkk bi nekkee lu sensible. ndax ndox mu neex buñ koy wax du côté plaisir rek moo tax. côté jàngoro yi muy jur moo gën a tax ni assainissement nekkee problème ci dëkk bi nga xamante ne bu tawee xëy na Touba donc doo ko mën a xàmmee noonu la emploi jeunes yi nekkee problème bu gën a rëy damay faral naan c'est le plus gros challenge di mouridisme au vingt et unième siècle te euh, ñàkk ko waxtaanee mm-hmm. erreur la ñàkk ci teg loxo erreur la mm-hmm. sëggu ko erreur la mm-hmm. ndax dafa doon euh, loo xam ni li may wax naan dafay remettre en cause le caractère spirituel dëkk bi mm-hmm. même si c'est de façon temporaire ndax euh, Touba sunu taux de croissance démographique ci yu gën a la bokk mm-hmm. comparé ak geneen dëkk yi Touba mooy dëkk boo xam ni euh, boo xoolee gone yi fi ñuy jàng ci jaar-jaar daara alxuraan génn ñu ci ëpp bu noppee qualification daf leen di néew. te yi nga xamante ne tey jii mooy mën a permettre nga pare daara au moins am ab métier am qualification. mooy xam ni man mën naa def lii. mën naa def plomberie. mën naa def électricité mën naa def lii mën naa def lii. dafa néew. loolu dama ci jaajëfal euh, structure bu mel ne génération Salih ak euh, Serigne Fallou Niang mm-hmm. xamante ni ñu ci def liggéey ak daara yu bëri kon bu ñu dajalee stock ndaw yu tol noonu mm-hmm. jàngaleen alxuraan def si ñoom diine nga xamante ni boobu le pouvoir spirituel ñoom wàccoo nañ ak ñoom mm-hmm. ndax damay insister toujours naan dëkk bi moom dafa am sëñ bi lu ko ci war am murid lu leen ci war sëñ bi la ko ci war ma ci saa su ne te jiitu nañu jiitu goo xam ni bu ñu doon liggéey fanweeri at moom mu tëddi ko di ko nelaw wala ñuy tëdd junni at moom mu ko nelaw duñ ko dab kon góorgóorlu ba gone mën a am xëy da doon loo xam ne dañ ci war a mën a càmbar bis bu yàlla sàkk bis bu yàlla sàkk ndax buñ ko deful dina jur liñ naan oisiveté oisiveté mm-hmm. mooy toog amoo loo def toog amoo loo def mooy dugg ci loo xam ne sa yoon nekk ci wala kenn santu la ko te boobaa moom mooy indi jafe-jafe yu bari délinquance insécurité kon lii nga xamante ni ñu ngi koy dund ci dëkk bi ci wàllu ñaari fànn yooyu du loo xam ni dañ koy jàpp rek ni phénomène la boo xam ni dafa naturel phénomène boo xam ni la c'est une un phénomène logique te bu ñu ko toogul xool nu ñu koy réglee rek dinañu ëpp doole kon jàpp naa ni moo tax au niveau de Rijal Holding euh, sunu stratégie d' investissement ñu ngi ci doon junju ak suñu politique dañu jàpp ni dañuy def des investissements à impact investissement à impact mooy investissement boo xam ni danañ créer dara waaye dinañ mën a xayma ñaata emploi le maximum lañ ci mën a créer moo tax boutique bu ci nekk boo demee dañ fa fekk douze emplois créés directement ak quatre emplois indirects quatre emplois indirects mooy deux éléments sécurité ak deux de nettoyage kon aspect impact boobu loo xam ne dañ koy sóoraale ci investissement yi ñuy def yépp mais boo jëlee nga xool ni bu nu dajalee le réseau de 17 boutiques 17 boutiques nga def 17 fois 12 on ne fait même pas 250 300 employés de façon directe nga jël indirecte donc on fera même pas du ñu matal sax 350 employés par rapport ak stock boo xam ni ci gone yoo xam ne dañu soxla liggéey xamuloon nañu toll kon loo xam ne la ñun xëy ne dañuy créer benn impulsion mais faaw ku ñu ñemee toog waxtaan ci mm-hmm. te sëñ Muntaxa moom xam na ni jàngale xam-xam moo jiitu ci nit mm-hmm. mooy tax nit nekk nit mm-hmm. moo tax mu song université bi bu gën a noppee université bu ñu réglewul problème boobu dañuy toog nekk des chômeurs de plus par rapport ak li fi jot a nekk nii mooy problématique bi nga xamante ni yaakaar naa ne yoonu murit yaakaar naa ne Touba laaj nañu mën ci toog daf ci assise waxtaan ci ndax daf ñu jural jafe-jafe yu bari yoo xam ni boo indi woon police du monde yépp boo demee ay Sao Paulo da nga fa gis ay gone yoo xam ne 12 ans 13 ans touriste bu romb ñu agressé agressé la këf saak daw jëlale daw te dara indilu ko loolu oisiveté mu jural leen délinquance bu bari il faut qu'on soit enjeu dëgg dëgg dëgg yi nga xamante ni moom la yoonu mu di di leen te mën a dem sa boro ci pas-pas ci nit mm-hmm. ndax bu dee ba nga tollee si jàng école ñu dugal la daara dugalul la école française mm-hmm. nga pare daara ka dugal école française pare na daf leneen mm-hmm. daf leneen yow yaa ngi toog di xoole moom mu pare am diplôme am ba dugg jàng yow yaa ngi toog di xoole mun nga toog sax remettre en cause daara alxuraan bi nga dugal daa mel ni moo ngi noonu xaw a ñaxtu loolu te loolu parce que tout simplement am nan ñoo xam ni muy ñun muy ñeneen muy muriti dañu war a jouer un rôle dans la création d'emploi bañ a yem kese ubbi benn boutique di jaay marchandise génn ci mais mën xool naka leen mën a defee des investissements d'envergure yoo xam ne dinañ mën a recruter ñu bëri ndax yombul ñàkk yomb gi mu ñàkk yomb moo tax ñu bëri di ko daw mm-hmm. am naa ci góor gu baax góor fii danaa ne man lu weesu juróomi nit mënuma leen manager <laughs> moom dala koy wax nga dégg ko mm-hmm. ñun fi mu toll nii boo jëlee seen champs yi 72 bu ma jëlee sama yeneen entreprise yi ma géré je suis pratiquement 250 emplois yoo xam ne ñu sama réseau faaw ñu def ko. Mhm. ndax bu yomboon kon ñëpp def ko ñàkk gi ñàkk yomb moo ñu jaayante ko kon loolu vraiment c' est un cri ci wàllu emploi des jeunes ci wàllu taxawaay dëkk bi ci wàllu dimbale sëriñ bi ci li nga xamante ni moom mi ngi ci waram. Mm. moom faaw ñu taxaw ci ñu ngi ci góorgóorlu suñu kéemtulaay kàttan waaye li ñu teg bët. ci wàllu demande. Mm. sànq rek am na ko nu ci jam naan nu leen tontu ci demande emploi yi leen di yónnee. <laughs> xëy na moom la ma xamul mooy booy jot bis bu ne nga jot cent cinquante deux cent email yoo xam ne demande d'emploi la. Mm-hmm. bis bu ne mënoo bis bu ne toog di leen tontu. kon dañ ci jéggalu waaye noonu la situation bi tëddee kon faaw ñu évalue ko comme un point. bu doy waar point bu critique boo xam ni fa la dëkk bi toll fa la yoonu muy toll ñi nga xamante ne ñooy mairie bi ñi nga xamante ne ñoo mën a sañ toog xam ne tey jii yan solution lañ mën a am pour créer des emplois de masse pour bañ mu nekk rek des initiatives isolées yoo xam ne tey jii comme ni ma la ko waxee ñun bu ñu noppee 300 350 employés duñ ko weesu mais 300 350 employés sur une population estimée à 1 million 500 boo xam ne plus de 70 pour cent c'est des jeunes kon war nga moo fi nekk stock loolu lañ ci ndaw ñi nga xam ne am nañ ay diplôme yooyu toog ci lii dëkk bi tam amuñu liggéey yéen a ngi def ay recherche bu baax. loolu moom jeexul. Mhm. ndax eh, li ñu yor rek waaye muy ñu yor diplôme ak ñu jóge ci daara yi. Mhm. ñëpp la ñuy recruter ndoo ñu jóge ci daara yi defuñu benn fixation ni. xam nga làkk français wala faa nga làkk mhm. li pour liggéey ak ñun. dañuy liggéey ci olof ak ñoom da leen di jàngal lenn li ci français wala xam leen ni DLC mooy date boo xam ni. Mm-hmm. bu ko jël jot bu waajoo jot kenn dootul lekkati produit bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu xamee ko noonu. donc loolu ñu ngi ci te bëgg nañ sax ci kattan yàlla suñu borom li naan taxawal Rijal Academy mooy commencer former ndongo daara yu bari. pour que suñu boutique yi ñëw plus tard. ñu mun leen dugal leen très rapidement dugal leen ci. waaye du doy. du doy ñun li ñuy def du doy li keneen di def doy faaku ñun ñëpp mu mën a defandoo loo xam ne day bari pour que mu mën a tëjee régler le problème beneen question bi mooy wàllu diaspora bi ak jàppale leen ci investissement. Mhm. ñun li ñu mooy oo leen ñu ñëw liggéey ak ñun. Mhm. ndax euh, investissement du ak nga indi sa marchandise jaay da ngay jël sa dërëm jëm investissement nag mooy yor sa jiw yor sa suuf gas dugal ci saytu ko di ko topp di ko roose di ci def engrais jindi ñax mu bon bi. Mhm. day toog dundee yaakaar foofu la wutee. investissement mooy yor sa jiw yor sa engrais yor sa suuf yor sa ndox. Mhm. gas dugal si sa jiw sëkk roose toog bis bu ne nga saytu ko. Mhm. saa yoo xëyee nga roose ko soo wóobatu ko dindi ñax mi topp mu génn bopp bi. Mhm. jóg màgg tuuti ngay arrosé am ñax cu ñe mu tóor tóor nga toog yaakaar mu jóg dem. kële nag moom conteneur am may indi jëndee na ko fukk jaay na ko ñaar fukk jàll na dem yoonam. waaw loolu rek lañ xam loolu jafe-jafe bi nag. jënd ak jaay rek danaka am kon jafe-jafe gi nekk ci investissement faaw mhm. nit ñu xam ko mhm. c'est un sa euh, ça demande nga xam le terrain xam mhm. di fu secteur bi toll donc boo nekkee de à l'étranger bëgg ko def mën na am jafe-jafe te loolu dañ koy déconseillé ñu bari waaye laa ku koy def tamit na nga mën a def immersion mën a ñëw sur le terrain xool ko ñun nag suñu wàllu bopp yaakaar naa ni ñu war a def ci wàllu investissement bari na bari goo xam ni euh, ku ci nekk dala a oo nga ñëw ànd ak ci liggéey au lieu ñu tasaaroo ku nekk dem sa ku nekk dem sa wet yaakaar naa ne euh, ci biir yi jàll mën nañ def loo xam ni euh, dana jur lu gën a a yaatu te dana tax suñu gën a bari incha allah. bu mujj bi mooy loolu moo ñu def murit laata ñuy daje sax nekkoon nañ ci ba <laughs> ndax euh, muy xilaafa gi muy association de développement yi dañ ci doon amul débat sax doon. daañu ko ci naan laata ñuy daje ci biir yi jàll ku ci nekk wàllu université bi ci wàllu mouvement développement yi Touba sa kanam jaayante nga ci mm-hmm. kon rijaal moom wutewul dara ak loolu mm-hmm. murid bu ci nekk tey ji am nga sa programme boo xam ne yaa ngi koy dawal ci wàllu mm-hmm. université bi am nga sa programme boo xam ne yaa ngi koy dawal ci wàllu Touba sa kanam ndax ñun ak mm-hmm. mm-hmm. ci nekk daanaka xam nga li ngay li ngay dugal kanam mm-hmm. defe naa ne loolu lañ amoon lu ñu ci wax ci wàllu question am na solo <coughs> kon tiital na solo euh, kon euh, xam naa euh, fii ak soxna mi doon waxee léegi muy problème mu jafe-jafe yi nga xam ni Sénégal nag am na ko ci wàllu <coughs> économique am na ko ci wàllu investissement yépp tey yéen ban solution ngeen jàpp ni euh, moo koy saafara ba tey suñ ko wax defee Sénégal da mën a génn ci jafe-jafe yépp ci côté investissement côté économique beeg yépp ba nga xam ni suñum réew réew yu dellu gannaaw yi nga xam ci leen ko classé ñu mën a ñëw ba bokk ci réew yi nga xam ñoo ne ci kanam. waaw xam naa loolu moom bu ñu ciy tontu dañ ci boole ak OF tooy ndax xëy na. Euh, sunu taxawaaye ak sunu jëmm yu xeebu yi pour wax ne dañuy régler problème Sénégal xam naa ne lu rëy lay doon <laughs> waaye sunu xalaat ak xam-xam bu gàtt rek mm-hmm. ak ci analyse sunu jaar-jaar mm-hmm. ndax ñun dañu jaar ci système socialiste jaar ci politique socialiste jaar ci plan d'ajustement structurel on nous pendant des années mm-hmm. ñu jàll ci politique dette bi fii fi Abdoulaye Wade ñëwee politique dette boobu continué waat ñëwaat su l'actuel président mu jural nu les problèmes qu'on est en train mm-hmm. kon mu mel ne le modèle économique bi nga xamante ni moom la ñuy dawal boobu ba léegi c'est un modèle économique qui ne nous convient pas maanaam dëppoowul ak li nga xamante ni la ñu soxla kon mu laaj ñu mën a am fit courage taxaw ak seetlu xam te ci ban modèle économique la soxla te mu dëppook Sénégal. Mm-hmm. ñu jàpp ni c'est un modèle économique endogène mooy loo xam ni si biir lay jógee. Mm-hmm. du loo xam <coughs> maa ngi jégalu du loo xam ni bor lay jógee ñëw ci ñun du loo xam ne ay investisseurs ñoo koy indi du loo xam ni déedéet mm-hmm. dafa war a commencer si ñun ba noppi mm-hmm. ñu mën a favoriser un tissu économique local fort mm-hmm. ñu mën a favoriser une production local boo xam ni day doon une production boo xam ni ñun ñoo koy consommer ci ñu mën a favoriser l'utilisation des ressources financières dëkk bi mhm. utilisant le levier bancaire mais pour nga mën a utiliser levier bancaire bi il faut nga mën a maîtriser sa monnaie mhm. muy beneen débat kon foofu lañ toll tey ji ci constat mais li ci am solo rek mën a xam mooy dafa laaj un courage politique mhm. boo xam ne amagu fi ndax le modèle mourit rek en termes de de, de, de financement participatif dans la réalisation des infrastructures rek dafa doy jàngat ñu ngi koy répliquer dans le système d' investissement productif agricole mu mel ne état mën na si jàngat lu bari. Mm-hmm. Éthiopie tey ci am na ci projet yu bari yoo xam ni ils ont lancé des obligations diaspora. Mm-hmm. nga xamante ni diaspora bi ñoom ñoo contribuer pour réaliser des projets yoo xam ni c' des projets à milliards. Mm-hmm. parce que l' argent est disponible. kon yaakaar naa ni foofu la état war a mën a egg pour que ñu mën a régler nos problèmes de définitive mais dafa laaj volonté politique mais dafa laaj a am ay njiit yoo xam pas pour régler le problème tout de suite mm-hmm. mais pour pouvoir préparer seen alter seen seen seen succession mm-hmm. loolu mooy li jafe mm-hmm. ndax ñi fi nekk ñëpp bu ñu nekkee boo xoolee décision yi ni jël yëpp si seen mandat lay yem décision bu ñu jël bu weesu seen mandat rek lépp xaalis la bor yi day weesu seen mandat saa su ne waaye yeneen décision yëpp inauguration euh, defar lii faw mu pare faw mu leeli seen mandat la yem waaye loolu bu ñu koy def mën na jël des engagements financiers yoo xam ne dafay weesu seen mandat boobaa danaan suñu yoon newu ci mm-hmm. ka topp bu ñëwee moom mooy indi problème kooku tamit bu régler problème boobu tamit jàllaat ci yeneen problème donc prise de conscience boobu faaw mun a am auprès de ñu mën a xam ni euh, tey jii il faut que ñu mën a bâtir un modèle boo xam ne c'est un modèle sur le long terme mm-hmm. mais li ñuy def nii dañu xuutar xuutari moom ak 2024 2029 on va avoir les mêmes problèmes mm -hmm. on va toppaat ci même situation être économie boo xam ne dañu dépendant de de l' extérieur à pratiquement 100 euh, lépp lu ñu lekk dañ koy maitriser maîtriser wuñ suñu ne mm-hmm. subvention donation ak dette rek moo ñuy dundal euh, benn système étatique ou bien bureaucratie boo xam ne daanaka li muy lekk ci budget état bi rek foo ko nattu weesu na ko mm-hmm. au investisseurs yi ñu ñëw à coup de milliards ñu yombal leen lu bari mm-hmm. pour pouvoir juste équilibrer un boo xam ni c'est un budget boo xam ne qui n'est pas utilisé à bon escient qui n'est pas utilisé pour le bien-être des populations à la fin de la journée ñun rek ñoo ciy desal mm-hmm. defe naa ne jàngat bi ñun foofu lañ ci toll mm-hmm. solution bi nag il faut que mu am volonté politique te volonté politique boo xam ni euh, sans état d'âme mais en toute responsabilité mm-hmm. kon ñëw ci euh, am na solo euh, ci noonu wax kon daal am réew du mën a avancer mu ci leb ay bor di indi ca bor sax soo ko lebee ba ñëw Euh, ci euh, doo ko def fam war a jëm ni nga ko waxee. Mm-hmm. Euh, kon loolu am na solo kon war nañoo bàyyi xel bu baax a baax ni kon kenn ku ci nekk ci ñun war ngaa jàngataat sa bopp xool itam suñu monnaie bi ñu yor. Mm-hmm. nuñ koy gën a saytoo gën koo xool. donte ni maa ngi lay wax léegi ne loolu lu kenn du waxtaanee di ko xóotal la ñaare fii ndax saa yoo ko defee ñu ko fi jot a jaar yëpp ay jafe-jafe la ñu ciy jànkoonteel kaso dem nañ ca def na nangam yooyu yëpp nag di loo xam ni ñàkk moom suñu bopp. wala ñàkk mm-hmm. moom suñu bopp rek ci yëpp. moo tax lu bëree bëri mën a gut euh, a avancé mënut a saafaraw itam waaye xëy na suñu tàmbalee nii jéego bi ngeen teg ci gëm sa bopp ngir ñu mën a am suñu liberté ni ko Sëñ Tuubaa waxee woon na ko waxee woon ca njaarim ni ko Sëñ wootee woon xëy na su nee ba ca kanam lu baree bëri dina mën a euh, saafaraw mu di joxee joxeete misaal joxeete royukaay ne yëpp ñëpp mën a topp seen ginnaaw euh, Sénégal mën a jëm kanam loolu am na solo seen sang yi nag ñu bëggoon a ñëw ci ndax ñoom ndax yéen am na yoo nga xamante ni da ngeen ko jaay ak yu ngeen du jaay ak itam yéen a ngi saytu euh, qualité njaay mi ak date bu euh, waaj a jeex beeg yu mel noonu comme que foofu ngeen tàmbalee ci liggéey bi euh, ndax foofu yéen a ngi ci liggéey bu baax. waaw loolu moom dafa bokk suñu jaayante dafa bokk suñu jaayante mooy mën a jaay des produit de qualité. des produit si njëg mu baax. Mhm. ak produits yoo xam ne dëppoo nag li dëkk bi laaj ak sart réew mi laaj. Mhm. loolu dañ koy bàyyi xel bis bu ci sàkk. Euh, xëy na mu am de temps en temps comme parce que boo yoree lu tolloog deux mille cinq cent produits référencé mhm. mun nga ci am xëy na benn produit boo xam ne rëcc na la wala ñaar dafay am nga ci dafay am ci wàllu liggéey bi. Mhm. ci wàllu produit tamit liñ ci proposé euh, offre bi moo doon offre boo xam ne lu lu lu lu lu bi soxla rek da ko mhm. ci wàllu produit alimentaire ci wàllu produit DPH ci wàllu produit fruits légumes euh, denrées alimentaire lépp daanaka dafa ba ci dem ci wàllu poisson poulet. lépp daanaka dañu créer li naan euh, supermarché si mini su mm-hmm. mooy sur 300 mètres carrés nga proposer rayon yëpp. Mm-hmm. rayon yëpp ci biir loolu nag li mu laaj mooy organisation boo xam ni. Euh, fonctionnement en flux tendu lay nekk. Mm-hmm. loolu daanaka ñu ngi ci góorgóorlu suñu kéem tolluwaay kattan ba xëy na léeg nga ñëw euh, fekk bu ñu indee trois cent quatre cent ginaar ci boutique benn caameen romb fa jël lépp après ko fa jaar ci gannaaw danaan lii amu fi waaye loolu dafa bokk ci. li nga xamante ne mooy doxalinu grande surface léeg-léeg da ñëw fekk benn produit manqué nekkati am na ab caameen bu la fa jiitu ci ci kanam ñëw dafa lool waaye nag ñu ngi si góorgóorlu ba ak suñu équipe euh, approvisionnement bi ak équipe manager yi euh, ñu ngi góor góorgóorlu seen kéemtulaay kàttan c'est l'occasion pour man ma sant leen gërëm leen ndax doon nañ ñoo xam ne tey jii wax dëgg fa yàlla ñëw na fi pour liggéey rek mm-hmm. ñi liggéey ci seen champ yëpp ku ci nekk xam nga ni lii jaayante la ci digganteeg sëñ donte on a un contrat qui nous mais ku ci nekk la nga cay def dafay dem de la di contrat kooku dañ leen di rendre un vibrant hommage euh, ndax ñun loolu rek lañ ci mën liñ ci mën ñu ngi ko ci def la ci des ñoom ñoo koy mottali. Mhm. Euh, ñuy investir dañ investir ñu ñu def ci leneen li ñoom ñu def ci leneen kon bu dee waa doomi dëkk bi la euh, def liggéey bu am solo jaar na ñu mën leen ci sant di leen gërëm te liggéey la boo xam ne waaw góor moom boo ko déggee tamit dangay ngay gën ndax mën nga def lu baax mais la minute qui suit ci tombe loolu mooy sunu charme liggéey bi euh, donc on est toujours vigilant on est toujours euh, alerte pour que client bu mënti dugg si muy jënd pour cent franc wala muy pour jënd pour dix mille wala vingt mille mu mën a am qualité de service ak support boo xam ne daanaka da ko soxla ba produit bi bu fa amul sax ñu mën a jël un engagement trouver ko le plus rapidement possible indi ko ko. ci commande non daanaka ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy baax a baax na desaat nañ euh, en terme de progression li ñu desewaat ci marge de progression bari na. Mm. ndax ñu ngi ci produits référencés bëgg nañ dem vraiment ba atteindre quatre mille quatre mille cinq cent produits référencés. loolu nag liggéeyaat la boo xam ni euh, boo xoolee ñu ngi ci sept mois. Mm-hmm. li coow li di bari yëpp sept mois rek lañ dafa moom. Ah. Euh, daaru naan moo fi def six mois Madiana le vingt décembre la woon donc mm-hmm. boo ko xaymaa. 4 mois 10 jours la. Mhm. daal xuddoos le 15 février la woon. Mhm. dafagul 3 mois. nit yi dafagul weer. kon defe naa ni du ñu fàtte ni nag luy door la. Mhm. Eh, li mu laaj ci marge taux de marge d' évolution des na. ni mooy li ci am solo ñu koy bàyyi xel di ci gën a góorgóorlu quoi. surtout maanaam li ñoom soxna Aminata di a soxla wax ñoom bés dañuy dem marché. Euh, dem di duggi ci marché yi. gis euh, côté lu jëm yeeg mel noonu. Euh, dañ naan par période lay am. bii day manqué bii day ñàkk ndax yéen a koy waajal ci ay chambre froide yoo xamee ni euh, yu mucc ayib lay doon ba su tuuroo mhm. ngeen mën a jël denc su demee ba nga xamante ni bi euh, dem nañ ba gisatuñ ko ci marché bi mhm. ngeen génne yéen teg di jaay ndax loolu yéen a ngi ci bàyyi xel ak yu mel noonu waaw ñu ngi ci bàyyi xel mais dafa laaj beneen niveau d' investissement mhm. te loolu defe naa danañ ci yegg danañ ci yegg ndax euh, boo jëlee xayma bu gën a gàtt rek mooy am na jamono joo xam ne mango dafay tuuru waaye boo dawalee tuuti mango dootu fi amati. Mhm. te boo demee France su fekk fa mango. Mhm. Sénégal. Mhm. donc mu mel ne infrastructure de stockage yi dafa bokk ci loo xam ne c' est des secteurs d' investissement yoo xam ne war nañ ci xuus euh, waaye lu ci nekk ak bu jotee lu ci nekk ak nu ñu koy defee. Euh, ba boo ko defee tamit dana la wóor ni. Euh, am nga stock boo xam ni su di soit des produits frais wala produits transformés yoo xam ne di ci mën a di ci mën a mais incha war bi xam naa danañ am na solo kon soxna Awa euh, su fekkee am ngay laaj foofu ñu yëkkatee ko jotaay bi euh, nga man koo indil euh, Serigne Muxtaar Sarr ci laaj yooyu nga jot am foofu su fekkee am na ñu ñëw nag ci jéem ma yëkkati jotaay bi ndax mi ngi guddi ca Serigne bi yaakaar naa heure bi ñu ko waxoon sax xam naa ni jàll na waaye nag lu am solo di waxtaanee lu am lu am njariñ itam mënta ñàkk ñu jéem ma wax lépp lu mënu wax lépp rek waaye dañ jima tënkas tuut ba nga xam ne nit ñi dinañ ci ubbeeku bu baax a baax am ak ubbeeku ndax nit lu mu xamul rek lii lan la eh, lii lan la rek lay wax mm-hmm. waaye su ci amee lu ko leer nag moom mm-hmm. xelam ubbeeku ci baax dana ñime dana mën a song dana mën a engagé muy man mi nga xamante ni mën na maa euh, euh, tàmbali yor as as tuut lu mu néew néew yaakaar naa waxoon nga fan la tàmbalee deux deux mille francs mm-hmm. soo ko yoree tey soxna Aminta man ngaa dem bokk kii ba ko yor leneen ak leneen million loo yor man ngaa ñëw bokk kon loo xamante ne kenn moomu ko kon la lu ubbeeku la ngir murit yëpp mhm. ñu mën a taxaw ci euh, mën a liggéey ba am suñu indépendance bu bopp boo xamante ni moo ko na ci sëriñ ba sëñ bi ko jàngal ba fi ñu toll fii yëpp ñu mën koo am soxna su fekkee jekk nga euh, ñu jox la kàddu gi mhm. soxna Aminta waaw mel ne tamit est ko def ko ci biir li wër ko niche bi ndax tamit dafay baax comme événement yi ay màggal ay yooyu bu nekkee ci biir euh, corniche bi li wër ndax seen njaay du gëna a gaaw. waaw màggal moom kenn du ci xayma jaay. Mhm. ndax màggal lu waaye def du du taxaw. Mhm. <laughs> loolu mooy euh, c'est un constat ndax ñun mhm. dund nañ màggal ci xëy na yeneen anam ndax xëy ñu ngi wax seen champ waaye lu ko jiitu taxaw nañ fi pâtisserie ñu ngi fi vingt-huit sorimono dund nañ xam nañu màggal nu muy def ci moom lu mu fi fekk néewal ko doole moom boo demoon ba ngaa bu sax nga teg fa boutique bu ñëwee néewal la doole <laughs> loolu mooy tawféexu màggal. Mm. léegi nag li ci am solo rek mooy comme ni ñu ko waxee rek. mooy mm. góorgóorlu ba euh, balaa bis bu màgg bi di ñëw ñu mën a am suffisamment de points. ñu mm-hmm. jege vente yi. Mm-hmm. mais suffisamment de dépôt tamit. Mm-hmm. ndax dépôt yi moo lay permettre nga boutique jeex nga mën ko réapprovisionner waat. donc stratégie yooyu yëpp ñu ngi ci di liggéey donc am na fi mu fi mu toll nii dépôt Tanzil am nañ dépôt Xayra. xamante ne fu ñu demee ba am ñetti ñeenti boutique rek dañ ci sof benn dépôt. boo xam ne tey jii mën nga fa dugal loo xam ne mën na approvisionné boutique bi boutique bu ci nekk ñeenti juróom juróom benn yoon boobu màggal jotee incha allah rabbi xëy na dama dikk bi du la indil gàllankoor ñu ngi ci waaye incha allah dama a jafe. ñu wër corniche bi nag ñu amee yu mel noonu ci biir corniche bi. Hmm. dana baax ñëw bu baax a baax. incha xam ne yéen koy jaay. Hmm. kon ñu bàyyi waaw sëñ Moussa comme ni ngeen ko waxee woon rek. Mhm. Euh, nit ñaa ngi envoyé seen message ba léegi. Mhm. pour mën a jokkoo euh, sëñ Mokhtar Sarr. Mhm. sëñ Mokhtar kii ne ne est-ce que mën nañu xaar Radial Holding di investir ci wàllum éducation créer ay centre de formation ak ay centre de recherche pour le développement pour mën a gën a encadrer euh, ndaw ñi. deuxième question bi ñu ngi ci vingtième siècle mënuñoo wax développement. te duñu wax technologique. Mhm. est-ce que mën nañ xaar ci wàllum recherche ak innovation pour mën a créer ay portable walla ay oto ak genre yooyu parce que loolu demande la. Mhm. loolu moo doonoon question yi nga xamante ne ci jot na rot ci sunu téléphone yi. Mhm. waaw euh, Rijal Holding ci éducation. Euh, xëy na li nga xamante ne moo gën a yanu maanaa mooy appuyer projet éducation yi fi nekk. ndax njàngal moom mooy loo xam ni daakaar naa ne yoon mu du téye na ci lu dëgër. Mhm. Eh, bu ñuy wax wàllu université bu sëñ Muntaxa bi. Mhm. bu nu fàtte ni eh, université Cheikh amoon Bamba bu sëñ Mourtada Al Azhar mi ngi fi. Mhm. Eh, daanaka ki fait pratiquement la moom mooy école privée bi gën a mag ci Sénégal. parce que plus de soixante quinze mille pensionnaires. kon yaakaar naa ni li gën a yanu maanaam moo xool option ñu mën a renforcer projet yooyu pousse leen ko plutôt que. di daf des projet éducation mais loolu encore une fois xam naa ni bu ñu paree stratégie triennale bi xëy na danañ ci gën a càmbaraat xool nu ci mën a duggee nu ci mën a duggul mhm. xëy na li ma fàtte leeral rek puisque danoo wax wàllu technologie mhm. si euh, at bi tamit li nga xamante ni euh, dafay ànd ak Rijal ni mooy am nañ projet wu euh, installé li naan premier data center si dëkk bi mhm. data center mooy bërëb boo xam ni dañ fay stocké données yi masalan sunu ay données yi nga xamante ne ñu ngi suñu ay email mhm. mi ngi suñu euh, gérer clinique yi nga xamante ni des fois boo demee mhm. données cri yëpp daf nañ ko ci ay compte Gmail Gmail yoo xam ne dafa nañ ko ci à l'étranger ñu bàyyi ko parce que ce sont des données mhm. médicales ñun nga xamante ne dana am yéene euh, taxawal Rijal Money Rijal Money nga xamante ni xëy na on va atteindre les millions d'utilisateurs jàppoon na ni li yenu maanaam mooy au ñuy jël suñu ay serveur di ko loué ji ci bitim réew nañu créer suñu serveur bopp data center daf ko fi. loolu conseil d'administration validé na ko. muy euh, innovation de taille muy un projet d'envergure parce que boo xoolee tey jii euh, état du Sénégal am na ADIE serveur. Mm-hmm. ñu ngi waaj a inauguré serveur ñaajo mm-hmm. sinon société yu mag yi ñoo ko fi am ay Sonatel ay Tigo. Mm-hmm. jàpp nañu yoonu murid jot nañu mën a am seen data center biir Touba. ko données murid yi des biir Touba. loolu projet boo xam ne la ñu ngi ci liggéey. Euh, war nañ ko jébbal balaa at bi di jeex. Mhm. ndax loolu moo ñu mën a permettre ñu mën a ñun déjà suñuy données ci Rijal Money ak données Moodle ñu stocké foofu waaye clinique yi fi nekk. Euh, société yi nga xamante dañ fi nekk te héberger seen données foo xam ne xamuñu ko ñoom ñëpp mën a xam ne fi mu toll léegi seen ay données mën nañ ko def serveur bu nekk bii Touba am toujours qualité de service ak kaaraange goo xam ni xëy na sax duñ ko am buñ ko yóbboon faneen mhm. loolu ci wàllu technologie di ñu ci xuus mhm. di xuusaale aussi euh, ci lépp loo xam ne di bàyyi xel jamono da cee toll ndax euh, dañuy am stratégie d'investissement àdduna tamit di dox ba loo xam ne tey jii bu ñu ci tolloo tamit ba xam ne lii mënta ñàkk mm-hmm. bu ñu ko liggéeyee daf note de concept bi dat daf tous les éléments d'étude bu ñu ko soumettre conseil d'administration ridial conseil d'administration mën na ko xool ni waaw mën nañ ci dem wala mën nañ xaaraat kon defe naa ne loolu laa mënoon indi ay leeral ci wàllu euh, côté investissement boobu mm-hmm. xam ne ñu ngi euh, capacité financière mais am aussi euh, vitesse de réaction. Mm-hmm. mooy mën a atteindre am équipe yoo xam ne loo bëgg song rek di nga ko song. Mm-hmm. ndax euh, lenn loolu tamit ay limites la. Mm-hmm. Euh, boo bëggee def lépp faa nga toll nen na ni. bu dee dafa gën a bari sax boo moytul da nga xam ni am na loo xam ne yàlla suñu borom rek moo ko mën. Mm. kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom kàttal nañu ba mën a mm. song loolu. Mm. Euh, ànd kook murit yëpp ba mu doon tawféexu yoonu murit. Euh, te ñu mën ko seedeel karagu sëñ bu keroog bi suñu peñ te suñuy doom suñuy sët tamit xam ne bu ñu egsee. Mm-hmm. la ñu waroon def suñu jamono def nañ ko ci. loolu mm-hmm. laa di jeexal foofu. Mm-hmm. Euh, sëñ Ba sant nañu baax gërëm la. bi. ak itam jotaay bi ni mu tënkoo lépp xam-xam tege na ci xam-xam mm-hmm. te yéen la ju yoo xamante ni mm-hmm. yéene ngeen ko Rijal Holding yéene na ko ci dëkk bi ak euh, dundal dëkk bi ak itam fexe ba euh, kenn ku ci nekk nga xam sa bopp xam sa bopp googu nag la koy gunge mm-hmm. gëm sa bopp tege ca nag nit ki su xamul boppam rek du mën a gëm boppam waaye soo xësee xam sa bopp xam fa nga jóge fa nga jëm ak la ci aju da mën a gëm sa bopp nag ba mën a jóg na xam ni kon toog waratut xam nga yéen ni nga ma diggee seen wax lépp lépp suñ ko tënkee rek mooy toog waratut war nañoo jóg nag euh, bu yi ni xoj yépp ci ak fu mu jóge ñu tekkeel ko suñ bopp jóg dox dox suñu doxeenu bopp soxna Aminta loolu lañ indi ñoom mhm. ci coté yépp nag mhm. économique finance côté social côté éducation lépp rek mel na ni laal na ci bu ci nekk laal nañ ci ñoom euh, poñ boo xamante ni euh, am na solo trop surtout ma côté banque boo xamante ni murid yi ñoo koy seen bopp mhm. ak euh, foo xam ne dañ fay denc suñuy données yu murid yi loolu tam dafa am solo mhm. ndax tey soo xoolee euh, nit ki war na am secret yoo xamante ni moo koy moomal boppam yoonu murid moomal ko boppam waaye fi mu dool nii doo ko mën a am lan amoo foo ko denc amoo foo ko def ñoom nag suñu taxawee dañ ciy taxaw seen kéem lay kàttan ak euh, côté transfert ñu am benn foo xamante ni murid yi koy moomal seen bopp di ca dem ak dikk vraiment murid itam dañ ci am fierté ca li ma la xal mooy nit ñi dañ ci ànd ak yéen ci danañ leen danañ ci jàpp baax suñ ko gënee xam ndax li ma lay jox misaal rek mooy tudd nga ko léegi muy ay nu ndoxu sëñ Ahmad Badawi bi fi mu toll nii man fu may dem di jënd bala maa jënd leneen damay dem laaj laaj laaj ba mu ne amut mhm. doonte damay dugg ñeenti bi boutique mhm. ci amu ko soo ko dem ci naan ci leneen kon loolu murid yi moom xam nañ leen ci lañ moomal seen bopp <laughs> ñu téye ko mhm. ca consommé ko nañ ko war a consommé euh, dalal ko bu baax a baax kon lii leer na kon tey ni kenn nekkul seen gannaaw wax nga ko dum naar du financement bu jóge fenn. Mhm. ay doomi Sénégal doomi Touba yu euh, jël seen ay koppar. Mhm. boole fas yéene jëmale dëkk bi kanam rek ñoo taxaw soxna Aminta. ñu bàyyi ko mu lancé ban ban message daal ngay jox mbokki euh, Sénégal yi na murit gi ci Rijal Audio. suñu borom. Mm-hmm. Euh, di sant sëriñ bi ak tawféex gi nga xamante ni am nañ ko ci initiative bi ndax xam naa du sunu ngóora du sunu jàmbaar du sunu euh, ndimbal yàlla suñu borom képp la. di sant aussi euh, investisseur u Rijal Holding yëpp ndax xëy na ñoom ñëpp ku ci nekk wala ñu ci ëpp ci télé bi wala ci réseau sociaux yi rek lañ may gis. lañuy gis yeneen membre conseil d'administration yi ba na bu nu amee kóolute ñëw ànd ak ñun lii duñu ñu fàtte mukk ni sëñ mbamba moo tax ak tuba ak dëkk bi sell bi kon cant gi moom dañ lañ koy delloo euh, di sant aussi conseil d'administration bi nga xamante ni xëy na wóolu na ma ba jox ma euh, nomba yi ma mën a dawal lii ginnaaw loolu euh, dañuy woote rek ni li ñuy def lu leer la fi ñu bëgg jëm lu leer na ci kàttanu yàlla suñu borom am lu ci naatable doxin gi liñ ci maîtriser wu rek mooy nu muy gaawee ndax ni muy gaawee dafa aju ci naka la ñuy euh, amee puissance financière bi waaye puissance financière bu dajaloon ñu xam ne doxin bi mën a gën a gaaw njëkkante bi moom boobaa dana koy raw gàddu moom dana mën a gën a yomb kon ñu bàyyi xel ni euh, toog di seetaan lenn li waratul kenn muy à l'échelle nationale dañ toll ci jamonoy action action mooy lan ku ci nekk la ngay def war nga mën nga xool ni tey jii lii toog di ko wax jotatul jóg daf ko moo war waaye boo koy def tamit na nga ko def ak xel soo ko deful ak xel rek mën nga gaañ sa bopp wala mën nga sonal sa bopp wala mën nga taadeel sa bopp daf ko xel nag mooy xool tey jii naka lañ mën a fédéré ndax tubaab bi dafa jur ci ñun loo xam ni sekel la mooy kenn ku nekk da ngay beroo rek di dem ku nekk da ngay beru xëy na da ngay fekk loo xam ne ni ñu ngi def ne au nga ñëw jàpp si nga ni déedéet damay dem beru dem sama yoon te buñ ko dajale woon xëy na mu gën a gaaw loolu dañ ci profité aussi benn parenthèse rek di jaajëfal suñu mbokku taalibe yi nga xamante ne ñu ngi ci dans la distribution ñoom tamit di def liggéey bu am solo ñu ngi ci dëkk bi muy waa Kër Sëñ Abdou Fata muy seen ndax ñoo bokk luñ bëgg te ñun gëm nañ ni liñ bëgg def na ko murid yi songandoo rek fekk murid koy songandoo ñun am nañ tawféex muy sëñ Abdou Ñaan muy waa Kër Sëñ Fata muy kër te ñu góor góorgóorlu ba li naa relever niveau bi mooy relever niveau bi mooy ak qualité de service bi bu bu seen champ dafee lu baax bu ñëwee ñoom lañ ko rokkos mu gën ci baax. ba ku dëkk Touba ku ci nekk di nga xam ni aajawul ngay dem Dakar pour fekk fa accueil bu baax fekk fa produit de frais fekk fa produit boo xam ne jëndee wu ñu fële fukk ñëw jaayee ko fi ñaar fukk. loolu mooy sama appel par rapport ak ñi nga xamante ne jàppewu ma leen comme ay concurrent waaye ay partenaires ci xare bi laa leen jàppee ndax Touba dafa yaatu. seen champ bu ñu ubbee 17 boutiques sax dana des ay poche seen teranga am na lu mu fiy def kër Sëñ Abdou Fatah am na lu mu fiy def parce que total kër Xaadim am ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye nañ àndandoo bokk li ñu bëgg muy loo xam ne lu gën lay doon te Radial Holding nag lu ñu ko gën a doolee rek ñu xam ne yoonu loolu mooy sama appel euh, te yeneen gox yi tamit li may wax naan tubaa da doon une zone euh, de leadership sëñ Touba leader la commencé ak moom xam nga ni mooy mooy commencé ak moom ak ku am cër ci yàlla suñu borom xam nga ni mooy njaay kon nag ñun taxawaay boobu faaw ñu am ko ci lépp lu ñuy def ba lépp lu ñuy def rek ñu mën a inciter yeneen gox yi ñu xam ne mu yi bu ndajaloowee def lii xëy na waa Fuuta war nañ mën dajaloo ñoom tam def ko waa euh, Kaolack war a mën a dajaloo def ko waa euh, Tambacounda war nañ mën a dafloo muy dynamisme comité communautaire positif dynamique communautaire positif ndax a la fin de la journée le produit intérieur brut ou le taux de croissance c'est la somme des croissances des contrées bu dajalee taux de croissance Touba bu Tivaouane bu Saint-Louis bu faneen moom mooy nekk moom ministre des finances taxaw ne lii mooy suñu priorité kon rek état bi gën si gis seen bopp kon suñu leadership boobu nañ ko assumer euh, ak ouverture ak euh, partage euh, ak inspiration ba nga xamante ne ni ngeen dana xam ne fii yaar bu ñu fi jaaree danañ am tawfeex ko loolu lañ bëggoon euh, tëjee suñu kàddu di sant sëñ Xaadim ak euh, équipe Touba Vision bi yëpp ci invitation bi ak ci waxtaan bi mm-hmm. euh, li ma doon wax rek naan da ngeen fekk ko gën néew li xam-xam ci dëkk bi ngeen invité ko mm-hmm. waaye xam naa du ñàkk moom li ci la ca topp xam naa ne dana gën a neexati te dana gën a baaxati incha allah rabbi macha am na solo ñu ngi koy sant bu baax mm-hmm. ci oyof gi ak taxawaay bi am na solo kon euh, lépp rek lu ñu kii def di ko jël référence ci sëriñ bi moom. Mhm. yaakaar naa ca kaw ca kanam rek. Mhm. ca ni mu doonee leader moom sëñ Touba. Mhm. yaakaar naa euh, yoon wi ñu tege. yaa jàpp naa duñ ko tegeeku ndax ni mu wax ndànk-ndànk teg ko ci xam-xam. Euh, suñ ko defee rek. lépp mën naa gën a taw féexe. kon soxna Awa. ñu jox la kàddu gi yow tamit nga tàggatoo ak mbokk yi. nga xam ñoo jàkkaarloo ñun ci dañu seetaan. ànd na ñun boobaak léegi wax dëgg yàlla. ñoom itam mën a jagleel ay cant ki ngërëm bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ci taxawaay yi nga xam ni mm-hmm. ñoo ngi koy am ci suñu digganteeg ñoom mm-hmm. ci safook ak faale ak itam euh, taxawaay bi ñu am rek ci lépp ndax euh, bëggoo gis yëg moo koy fay ca euh, koo xamul nam lay def nam koy def nam la defa tax kon looloo tax nag ñoom ñëpp ñu jagle leen cant ak ngërëm bu baax a baax a baax a baax ci euh, taxawaay yi ñu am mm-hmm. mooy suñu sponsor yeeg ñëpp mm-hmm. kon soxna wa ginnaaw jekk nga ñu jox la kàddu nga ko euh, mbokk yi jàkkaarloo yow ci di la seetaan mm-hmm. waaw suñ Moussa bala ñoo tàggatoo xam naa dafa am benn message boo xam ni euh, borom yónnee woon na ko mais dafa mel ni nee na tontu ko ci bu léegi. sëñ Mokhtar ki nee na est-ce que Rijal Holding xalaatul ubbi capitalam jox ko jox ay action yu bari xilaafa gi ngir mu mën a doon protection boo xam ni kenn du ko mën a attaqué. Euh, faw ñu ràññee. Mm-hmm. ràññee dafa baax ci lu ci nekk. Mm-hmm. moo li mu doon wax sànq naan sëñ bi ci li mu war a nekk moom xam na ko. Mm-hmm. bu laajoon mu sos lu mel ne Rijal Holding sos na ko bu yàgg. waaye le xalifaal euh, c'est une voie purement spirituelle. mais de facilitation de la chose temporelle. Mm-hmm. moom dafay dëgëral diine gu dëgër moom dëgër këj yombalal na suñu àddina bàyyi nañu góorgóorlu. Mm-hmm. kon euh, ci wàllu googu defe naa ni euh, lii aar rijaal c'est très technique du ginnaaw baatin beeg lépp c'est technique et c'est intégré dans les statuts mooy loo xam ni tey jii objet social la boo xam ni li koy dindi mooy. daanaka loo xam ne daanaka mënta ne investir dans Touba et dans des projets mourides kon loolu dañ ko nos bàyyi ko xel bàyyi xel goo xam ne ni Masamba Mademba mënoo jóge ci àll bi ak ko mënti doon ak loo mënti pour dévouer l'objectif ou l'objet social de Rijal en ligne il ne fallait pas daf listixaar il ne fallait pas aajowul woon ñuy euh, non dafa laajoon ñu mën a xool technique techniquement dëgg dëgg dëgg fi yoon jaar. Mhm. te ñi naka lañ mën a blender suñu ay statut ba ëllëg kenn du jógee ci àll bi pour ñëw déglu ko te loolu foofu lañ jaar ak Rijal ak statut yi man mii di wax ak yéen ma ak membre du conseil de bu mu mënti ne mënuñu soppi loolu. kon loolu dañ ci dalal xelu murit yi di leen ci xelal xam ni ñun li ñu seq ak sëriñ bi suñu wàllu taalibe moom daanaka mooy doon ñu nekk murit la ca topp mooy xam ni moom mi ngi nekk ci li war a nekk ñun nag ñu war a góorgóorlu nekk ci li war a nekk yombalal ko lu bari. Mm. damay faral di wax naan lii ñuy def nii ci liggéey rijaal na ko jàppee jaamu yàlla. te ndax kuy jaamu yàlla di julli juróom deesul dem tàggoo ne ñu ngi julli juróom dañ ci nekk rek xam ni yaa ngi taxaw féete sëñ bi foo xam ni mu di yëpp la war ndax moom mi ngi féete foo xam ni ku xëy ku ne naatable woon sëñ bi féete na la fam la war a féete. Mm-hmm. loolu laa ci bëggoon indi tontu di si jégalu baax. gis na ko dem nañ fa euh, leeral nañ ko liggéey bi mm-hmm. leeral nañ ko fu ñu ci bëgg yegg tamit mu mm-hmm. xam nga lu ñaanal ñu ci wax nu ci wax ñu ñu ngi tey max ga loolu loolu muy muy ndigal ba pare sang si ci nekk tamit mm-hmm. doon ñoo xam ne dañu dañu gën a dañu gën a doole ndax boo nekkee ci mbir mu wóor lu wér la sa kilifa ñëw fekk ci la ci dangay di nga gën a di nga gën a taxawaat foofu lañ toll nii ndax sang yu bëri wax dëgg fa yàlla souscrire nañ bokk nañ ci actionnaire yi ñu ngi jàpp ci liggéey bi dina jàppale ci utum site loolu bis bu ne saa yoo koy xëy rek dafa lay jolli jom dolli góorgóorlu te xam ne yaa ngi ci yoon ndax mu murit moom ndëgal la ak yow wéeruwaay mooy ndigal li ak lu muy def tamit jooyal ko sëñ bi ba mu teg ci bëtam ko defee daal di am ñaan kon allah. waaw kon jërëjëf mbokk yi ñoo ko déggandoo yaakaar naa tontu yi leer na te am na solo lool euh, ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dokkeel di leen wax jox rendez bu suba incha allah ci beneen plateau. Mm-hmm. muy 28 Mbeustune encore ñu ciy ànd ak Serigne Moussa Diop ak Soxna ami Dieng. Mm-hmm. nga xamante ne si ñoom tamit ñu ji euh, Soxna ami Dieng jigéen gu man góor la <laughs> Serigne Moussa tamit jàmbaar la ci côté bépp yaakaar naa ñu ciy invité borom xam-xam borom kàngam ak euh, ñëpp ñoo xamante ne si. doxuñu euh, lu ne lu ne lu ne ci lu dul euh, mbirum Serigne Touba rek. Mhm. kon ñoo ngi leen di jox rendez vous suba incha allah. Mhm. di euh, jaajëfal sunu papa ji nga xam ne moo fi teewoon. Mhm. di ko ñaanal yàlla mu guddal aw fanam. li nga xam ne moom lañ bëgg ci seen champ lépp. yàlla sunu borom defal leen ko ñu leen di sant tamit toute l' équipe bu Touba Vision. di leen jaajëfal sunu caméraman sëñ Assane soxna Fatou sëñ Xaadim Baye Mbène ak toute l' bu Touba. vision rek di leen yéen ñi nga xamante ne si yéen doon seetaan seen télévision mhm. bii di Touba Vision la télé qui suit les enseignements de Khadimou mhm. ñoo ngi leen di jaare bu baax a baax di leen jox rendez-vous suba incha allah rabbi ci yeneen plateau mhm. Uh-huh. waaw uh, kon uh, jotaay bi daa mel ni sëñ Khadim uh, ne dafa am question bu bu ñëwaat ci sëñ Makhtar waaye daa fekkante ñu yëkkati jotaay Euh, kon soxna Awa su fekkee egsi na ci yow mën nga ko wax rapidement ah dañ koy teg waaw waaw kon nañ ko nañ ko déglu euh, xam naa ni xaw naa tardé nag euh, ndax sëñ bi tàggatoo woon na pare <laughs> waaye nañ ko ma nga mayu ay ay quelques simili rek su egsee ñu man koo déglu nga tontu ci ñu soog a yëkkatiwaat jotaay bi ndax wax dëgg yàlla loolu rek moo am solo ñi ci biti di dégg di am. xalaat di laaj pour gën a leeral loolu tax sax ñu indi jotaay bi ñun mën nañoo présenté rek laaj yi di wadd ci ci biir ci biti ñu ñu nga ngay tontu. ndax li ci am solo mooy ñu jéem a gën a yaatal xamal ni liggéey bi liggéeyu ñëpp la lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca kon nag euh, lool rek moo taxoon ñu euh, sàkkoon jotaay bi ngir ñu mën koo àndanteeg yow ànd ko itam mbokki taal bi yi nga xam ñoo ngi ci biti rawatee nekk ci diaspora bi saa su nekk dañuy gën a feeñal seen yéene ci liggéey bi ndax euh, soo xoolee ba bés bi ñu dëgmal suba laylatul xadara itam ni soxna may fexee fexe fexe fexe ba ku tuddati laylatul xadar sa xel yëpp dem ci soxna may mm-hmm. yaakaar naa moog liggéey bi benn la rek mm-hmm. euh, nga xam ni bëgg-bëgg suñ cubaaloon daan na ko def mm-hmm. waaye murid yi daan nañ ko def waaye bi soxna may ñëwee ni mu ko joxee valeur ak fi mu ko aj tey ak fi mu ko e, e, e, indi euh, loolu lu am solo la loo xamante ni jar naa bàyyi xel bu baax a baax ñu xam ni kon nag ñii suñ ne dañoo dañoo sos lii nañ ci jàpp bu kenn toog ni waaye ñu nag li ñu gën a mën mooy taxaw ni du dem ba mu dem ba pare nag ñu sogal bi di ko topp ca waaw loolu am na solo waaye li lépp solo jeex na. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu waa Touba Vision man Massaer mbay laa tudd maa ngi nekk France dëkk bu ñuy wax Béziers maa ngi suivre émission bi wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax. damaa xamul nag moom dañ ci def ay euh, poser ay question walla dañ ci dañ koy teewlu rek wax ci maanaam euh, ci ci gisin yi waaye daal rafetlu nañ initiative bi <coughs> yàlla na ci yàlla def taw feex ak tey siir rek tubaarkàlla baax na lool waaw seulement bon euh, ci man sama gisin bi rek mooy wàllu liggéey bi ba ñu tudd concurrence lu bari xam ne loo xam ne kanam rek lay jëm wàllu tur bi tamit bi ma ko rombee dama mel ni maanaam laa naa dafa xaw a laal tuuti ci turu ay océan te mënoon nañoo wut lu mel ni benn turu originalu maanaam mouridisme wala beneen tur boo xam ne du du mel ni concurrence tur te it yëf yi du concurrence doo nga ko war a tax a jóg audio bi de gudd na waaye xam naa bu ñu ko xoolee dana seet ba xam ndax c'est la première fois ma dugg ci émission yi mel ni jërëjëf. Ah, am na solo laaj bi mel na ni tontu ko ci tàmbali ba. waaye nag comme da da koo da koo dab da koo rëcc lii mooy jot lii mooy jotaay bi nag lii mooy jotaay bi nga xam ne am na ñu dañuy tàmbaleek ñun am ñoo xam ne dañuy dab am ñoo xam ne euh, loolu mooy jotaay nag boo xam ne euh, ñii dañuy euh, dab jotaay bi ñu ngi koy topp bu baax kon loolu lay leeral kon nga dikk ci laaj bi tontu ko rek. liñ ci tontu woon lañ ci waxaat rek ndax du du choix boo xam ne dañu tëb ci lal rek ni nii lañ koy tuddee wala couleur bi la ñuy jël déedéet Euh, bu nu ko jàppee noonu rek dañuy def erreur lañ ñu ci waxoon mooy tour bu bees boo ko utee mm-hmm. la koy siwal ak li nga xamante ni mooy stratégie de communication bi koy lal mm-hmm. la mu laaj ca budget mm-hmm. bu nu ci duggoon dana toll lu tolloo quatre wala cinq fois budget bi nu investir nii te puisque dañu démarrer avec un budget bien défini il fallait qu'on soit extrêmement pointu stratége pour que ñu mën nu xam rapidement ñu mën a commencer suñu liggéey ba pare ràññee nu en même temps donc euh, similitudes yi am c'est des similitudes peut-être sur les te euh, tey jii boo demee France di nga fa fekk enseigne yu bari ñoo xaw a nduroo couleur ñii rouge la ñii rouge lan euh, su les terminologies de nom effectivement mais encore une fois li ma wax naan bu nu jàpp ni mënoon nañu ko tuddee xel comme market wala tuddee ko tur boo xam ni da doon tur boo xam ni peut-être c'est local mais dans ce cas de figure il faut que nga mën a bâtir benn stratégie de communication et un budget de communication boo xam ne boo moytul sa lépp ci lay des kon da doon loo xam ne ça a été très réfléchi euh, bien réfléchi même et assumé euh, te xam naa ni bu ñu tuddoon neneen tamit xëy na murid du bari dañuy romb rek de façon anodine jàpp ni moom xëy na daanaka xel ko market rek benn ab benn Baye Fall mooy góorgóorlu def teg ko fi mm-hmm. ndax yaa ngi xool rek yaa ngi tudd léegi ci wàllu communication effort ñu ci war a def nga xam ni boobaa tamit day laajaat dix fois wala cent fois plus d'effort si affichage outdoor télévision nga war fa jaar flyers loolu yëpp nga war ci investie pour que nit ñi mën a xam yaay kan tey jii ba ma laajee da nga naa ma seen champ mooy kan ma ne seen champ mooy société boo xam ne day def distribution mu di moom ko xam nga ma ba noppi da nga ma bëgg a ràññee xàmmee ma kon loolu leen ci indi tontu après le reste xëy na nit ñi de façon euh, émotionnelle dañuy bëgg toujours ramener la chose mais ñun ñoo gën a nekk murit waaye ci li ñuy def tamit faa ñu ci boole toujours xam-xam ak pexe yoo xam ni dina nu permettre dox bi gën a gaaw mm-hmm. loolu am na solo euh, soxna Aminta euh, kon yaakaar naa mbokk mi doon laaj itam euh, leer na ci boppam ne kon am na fu ñu xool mm-hmm. tëju càmbar xool bu baax a baax a baax fi ñuy jaar. mel na ni nag moom sëñ bi moom itam wax na dëgg ñoom murid dañoo xër ci Serigne Touba ak li ci li li aju ci moom waaye ñoom itam dañoo fas yéene indi stratégie doxin bu bees woo xamante ni xam naa daal ñoom itam gañe nañ communication foofu bu baax a baax a baax moom xam naa moom suñu paree euh, dañoo war na fayaat ñee nag moom tuuti moom war nañoo yëkkati ko koppar jox ñee ndax ndax waaw ndax vraiment euh, doy na war daal <laughs> kon ñuy sant bu baax di gërëm mbooleem ñi ñuy bàyyi xel ci euh, France ñu ci ku ci mel ni Serigne Manel Fall di euh, Canada Serigne Manel Fall di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ak Cheikh Ibrahima Fall moom tamit ñoom ñëpp di ñoo xamante ni euh, wëllëree Touba Vision lañ ànd ak ñoom ci liggéey yi waaye itam surtout jàpp gu ñu jàpp Sëñ Xaadim te jikko boole leen ñoom ci loolu ndax Sëñ Xaadim xoolee Baye Fall la murit Baye Fall la koo xamante ni dara manqué ci côté boobu ñu koy ñaanal kon nag ak bëgg Sëñ Touba geeg maam Cheikh Fall gi moo leen dajale kon Sëñ Manel ñu ngi lay siyaar baax a baax yow tamit. di ñaan yàlla weeru koor wi euh, li ngeen ci def ci ay ndogoog lépp ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla ful ci barke sëriñ Touba Khadim Rasoul ndax lii rek mooy yoon wi muy baay faal gi nekk fii di jë di xidma murid di nekk fii ñoom tamit di jëf lañu war a jëf suñ ko boolee nag mooy yoonu murid mooy li xam ni moom la Serigne Touba ëppalee ñépp muy Cheikh Rafal ca kenn amu ko ku moom kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ndokkee leen ñaanal foofu ngeen nekk yéen tamit ca daan seen doole leen fa yàlla na ngeen euh, am teraanga ju ngeen mën indiwaat ci réew mi di Sénégal kon ñi ngi sant bu baax a baax soxna Aminta ñu wax la nga tàggatoo. waaw xanaa di bëggaat lool ci jataay bi di santaat bu baax tam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne saa su nekk lu waxtu yu yàgg yàgg ñu ngi topp émission bi ndax ñor leen ñor wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di waxaat rek comme message bi mu lancé rek ni xam ne nañ ko songandoo danañ ko daan incha allah ndax lépp moom suñu moomeelu bopp la waaw suñu moomeelu bopp nag lu nga moom nag kenn wuroo xaar kenn du ci ëppale. kon nañ ci jàppaat bu baax a baax di rafetluwaat jataay bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di wax ni suba incha allah xam nga ni alxamis moom guddi guddi xasida la woon ah, nawetu xadar gi tombewaat ak alxamis gi kon mbëstan encore eh, moom macha allah suba incha allah dañuy dund xasida yi rek ah, bu soobee yàlla incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax axiru daawana an alhamdulillah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Mm-hmm. waaleykum salaam mm-hmm. euh, am na solo ñi ngi lay ñaanal baax yàlla doon la tawféex ak mbooleem ñi nga xamante ni ñi ngi doon ànd ak ñun kon suba laylatul xadar la mm-hmm. dañoo fas yéene àndanteeg euh, njàngam kuréel yi nga xam ñooy am ci euh, dëkk bi man leen ko indil ndax am na solo trop ñu bàyyi ko xel ci ñi nga xamee ni ñooy ànd ak ñun ci kàttanu yàlla kon di leen jox dox daje vendredi ak jàmm incha allah. di defar affiche yi euh, man ko teel a jox mbokki taalibe yi ak samedi ba ak dimanche ba lépp mel na ni invité yi yemb nañ ba pare suñ ci jàpp euh, eggee rek den ko mën a jox mbokki taalibe yi ñu ngi sant di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbëstën mbëstan encore yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi mbokk yi kenn ku nekk xam na ni waxtu wi ñu ngi ci wàccaayu weeru màgg weeru tedd weeru Serigne Touba Xaadim weer wi nga xamante ni saa yu masaan a dikk ku tedd ki di Serigne Touba Xaadim lépp lu mu daan def da koy ful mu di weeru koor mbokki téléspectateur Touba Vision ñu fas yéene ànd ak yéen ci weer wu tedd wii ñu jëm si weer wu sell woo xam ne shahru ramadan lazi unzila fihi alquran seen télévision mag bii di Touba Vision indil leen mbëstal lan mooy mbëstal su ngeen wooree ba ngoon jot dogu naafila ngeen toog seen saa nag fas yéene jàkkale ñu indi leen mbëstal yu am solo vingt-huit jours ci weeru koor wi lépp nag ñu ciy waxtaane ay thématique yu fasantikoo maanaam ay jotaay yoo xamante ni ay palaato ay reportage lépp nag jëm ci askan wi waaye itam jëm ci dëkk bu sell bi di Touba. biir mbëstan mi guddi aljuma yi ñoo ngi ko jagleel xasida yi ak ñooñu xasida yi. ñu indi leen mbëstan yu am solo ci ay palaat yu wuute palaat yoo xamante si nii saa yi ñu ko indee rek seen ruu dana dund. bu ñuy tuddee koor fii ci Touba xel yépp dina dem ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall lu tax ni nga xam ne moom la ñu toggee ndogu yi dinañ ci ànd ak yéen. site bi nga xam ne moo di Touba Vision chaque jour ak nañuy toggee ndogu yi danañ leen ko toppal nañ koy toggee ba niñ koy jébbalee Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir. lépp lu ngeen bëgg a xam ci dëkk bu sell bi di Touba moo xam ci social moo xam ci culture moo xam ci wàllu économique moo xam ci wàllu développement ba ci wàllu santé. lépp dañ koy waxtaanee. ngeen ñu xaar saa su nekk ci seen saal ak ay laaj yu am solo yoo xam ne su ngeen ko indee en direct lañ leen koy tontu ci facebook youtube bi ak fu mën a doon. mbokk yi ñoo ko déggandoo gaaw leen gaaw abonné fii ci Touba Vision bu leen bëree dara ci leen ci bësën